salaamaaleykum euh, ñu ngi yëgal mbokk yi nga xamante ni euh, ñoo def secteur parcelle muy élèves yi ñu nekk secteur parcelle élèves yëpp am nañ suura dimanche bii di ñëw MPA1 MPA1 ñëpp waxuñu ñu nekk commission d'avance ñëpp mbokk yi jàng secteur parcelle ñëpp am nañ réunion LPA 1 dimanche bii di ñëw 11h incha allah. alhamdulilah wasalaatu wasalaamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa wala ومن تبعهم بإحسان ودعا بدعوتهم إلى يوم الدين بارك doomu lay ginnaaw ñu sant yàlla subhanahu wa taala julli ci ranta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dañu dalal sunu oustaz sunu mag Mor Kébé ngir ñu daal ñu garal benn waxtaan bu aju si ñi di suufiya tasawuf li nga xam te mooy origine am ak ak danger yi ci nekk mu nekk thème bu am solo ndax nekk na mbir boo xam ne lu lënt la ci sama ñaar bi ñu neexul comprendre ba tax na ma ñaan mbokk yi gis ko ci man daal di bàyyi xel bu baax a baax li nga xam te na ci gaaral ba li nga xam te ni nekkul luy leer si ñun daal koy laajaat xam naa naa mbir yi bees na te boo moytuwul léegi yaa ngi commencé teeku mais ñu bàyyi xel bu baax ñu ngi concentré wu ndax nekk na thème bu am solo kon ñu jox ko saa dara bu incha allah. mbaa man du ma njëkk nelaw. incha allah.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 assuufiya imma at tasawuf muy doxalin wala assuufiya muy ñi nga xamante ni ñoom ñoo yor doxalin boobu muy benn kuréel ci kuréel jullit yi ñi nga xamante ni ñooy askanewoo ci alqibla ñu leen tuddee ahlul qibla li nga xamante ni moom mooy jiitu bu boobaa kon ci waxtaan bi mooy def benn jukki bu ndaw boo xam dañ koy jiital ci wàllu lu waral loolu lu waral ñu toog di waxtaan ci benn kuréel ci kuréel yi nga xam ne askanoo ci lislaam lu tax ñu ne kuréel lu tax ñu ne doxalin te xëy na doxalin boobu ñi ciy wax xëy na sax bokkuñ ca kon lan moo war a waral mu mën a am ci lislaam doxalin boo xam ne ay nit dañ cay nekk ñeneen toog ci wàll ba di ci waxtaan am beneen taxawaay boo xam ne am nañ ko ci loolu li ko waral mooy tàqalikoo mooy aliftiraaq muy tàqalikoo ci diine ak jaar ci ay yoon yoo xamante ni bokkul loolu moom moo ko waral loolu nag ci jamono yonent bi alayhi salatu wasalam amul woon ndax moom moo fi nekkoon yàlla subhanahu wa taala yebal ko mu yar jullit ñi di leen yar ci benn mbir ñoom ñëpp ñu nekk ci bokk benn doxalin ci diine même bu fekkente ne rawante nañu itam ci wàllu góor góorlu ci ngëm yàlla lay dellu waaye delluwul ci uute ay doxalin ak ay gis-gis ci lislaam kon bu uute amee ci ginnaaw bi ay tàqale ko am mu ne su koo delloo ci lu amoon ci jamonoom mu ne su koo delloo ci lu amoon ci jamonoom ndax jamonoom loolu amul woon yàlla def ko mu nekk yonent boo xam moom la yónni ci nit ñi mu yor njub di ci teete ak di ci yar jullit ñi di ko joxe ba mu mat mu jóge fi hada ma sha'nu yonent boobu alayhi salaatu wasalaam di muhammad ibn abdillah ci lu dul benn xadis bi muy définir l'islam di tekki l'islam daf ko tekki ci af ci anam bu am solo lu mel ne xadis bi ci gën a siiw di xadisu jibril bi nga xamante ni laaj nañ ko ci l'islam daf ne al islam an tashhada an la ilaha illa allah wa anna muhammadan rasulullah wa tuqima alsalaa wa tu'tiya zaka wa tasuuma ramadan wa taxujja albayta in istataata ilayhi sabila comme ñëwee ci xadisu Omar ak xadisu Abdullah ibn Omar xadis boobu yonente bi alayhi salatu wasalam da cey tekki l'islam tekkin bu am solo ndax dafa tekki l'islam ci leeral ki ñuy jaamu leeral liñ koy jaamoo ak leeral niñ koy jaamoo leeral ki ñuy jaamu mooy bi nga seede ne laa ilaha illa allah amul ku ñuy jaamu ci dëgg ku dul borom bi subhanahu wa kon luy tudd luy jaamu jubluwaay yàlla rek subhanahu wa taala la war a doon jubluwaay bi nit ki war a am ci jaamu bi yàlla la war a doon leneen li ci des mooy lu ñu koy jaamoo mu ne wa tuqima salaa wa tu'tiya zaka wa tasuuma ramadan wa taxujja al bayt mu leeral li nga koy jaamoo mooy li mu farataal ci yow mooy li nga xam ne moo ko farataal ci yow kon njaamu gi am na fu mu war a jóge am na balluwaay am na source boo xam ne wax na ni fa la jaamu gi di jóge ci l'islam bi mu lay définiral mu des noo koy jaamoo ci mbir yooyu ginnaaw bi nga xamee mbir yooyu am na yoon booy jaar ngir jaamoo ko ci loolu mooy wa anna muhammadan rasulullah mooy ne muhammad yàlla moo ko yónnee ndax loolu mooy devoir am loolu mooy mission loolu bu dañee ñëw gim ñëw dootu amati benn sens loolu yonente bi alayhi salatu wasallam kon ci la tekkee lislaam moo tax cheikh lislam taymi rahimahullah di wax ne diinullahi an la na illa allah wa an la na'budahu illa bima dina yàlla subhanahu wa taala mooy du ñu jaamoo lu dul yàlla te duñ ko jaamoo lu dul ci li nga xam ne moom la yoonal duñ ko jaamoo lu dul ni nga xamante ni tam noonu la noonu la ko yoonale loolu kon moom mooy lislaam bi nga xam ne yonente bi alayhi salatu wasalaam moom la indi jàngale ko leeral ko balaata mu fi jóge yàlla subhanahu wa taala wàcce alquran ne al yawma akmaltu lakum diinakum wa atmamtu alaykum nicmati wa raditu lakum al islaama diinan diina boobu la yàlla subhanahu wa taala wax ne matal na ko mottali ci ñun xéewalam di xéewaluk njub ci matal gi mu ko matal gërëm na ko mu nekk diine diñ ko war a jaamoo mooy al boobu yonentu bi alayhi salatu wasallam définir loolu kon mooy li yonentu bi alayhi salatu indi jullit ñi nekk ci anam boobu ñi fi nekkoon ànd ak moom yàlla baaxee la ñu daje ak moom ànd ak moom ay saxaaba lañ leen di tuddee ku ànd ak moom mooy man laqiya nabi sallallahu alayhi wasallam mu'minan bihi wa mata la dhalik nga daje ak yonente bi alayhi salatu wasalam jamono bi ngay daje ak moom nga ànd ak ngëm yàlla boo daje ak moom fekk jamono bi muy daje moom gëmul même ginnaaw bi bu gëmee te fekk dajewaatul ak yonente bi alayhi salatu wasalam kooku du nekk saxaabi kon foog mu dajeeg yonente bi alayhi salatu wasalam ci ngëm ginnaaw loolu mu faatu ci ngëm yàlla subhanahu wa taala kooku ab saxaabi lañ koy tuddee ñooñu ay maratib lañu woon ñi ñu tuddee as-saabiquuna al-awwaluun min al-muhaajiriina wa ansaar ak ñi ñëw seen ginnaaw ak ñi nga xam ni dañ leen defoon ay maratib selon seeni taxawaay ci l'islam comme ñi fekke woon Badar ñi fekke woon sulxul xudaybiya wa hakada dañ leen doon def ay ay darajaat yoo xamante ni dañoo ëpponte yool ak taxawaay ci l'islam waaye ñooñu ay saxaaba lañ leen doon tuddee ñu nekkoon ñi nga xam ne ñoo gën ci xeet bi yàlla yàlla subhanahu wa tagg leen ci alquran tazkiya leen yonentu bi alayhi salatu wasalam tagg leen yaral leen boppam ñooñu bi ñu fi jógee ñi ñëwaat ci ginnaaw bi tudd ay taabi'un mooy ñi nga xamante ni ñoo daje ak saxaaba yooyu ci wàllu ay tur la ñuy wax wa illaa ñoom ñëpp ay muslimoon lañ mais benn ci tur yooyu nekkul woon tur yoo xam ni dafay jëmmal ay doxalin yu wuute ak li ñeneen ñi nekk ci lislaam ay tolluwaay la rek mais nekkul luy jëmmal leneen loolu moo fi nekkoon ñu dem ba jamono rawatina ci ñaareelu siècle bi ci la am yu bari commencé tàmbali di am ci lislaam ay yeneen doxalin di ñëw ba leneen juddu ak yeneen mbir juddu loolu dinañ ci ñëw insha allah li nga xam ne moom lañuy ñuy waxtaanee muy at tasawuf baatu at tasawuf borom xam-xam yi wax nañu wax ju yaatoo yaatu ci fan la jóge dem ba ñenn ñi sax biñ jaaxle ba jaaxle ne baat bi jaamit la nekkul mushtaq mooy kenn jëlew ko fenn mooy baat boo xam ne ci arab kenn jëlew ko fenn muy tudd loo xam jaamit la nekkul mushtaq ñi wax ne mushtaq la ñu ëpp waaye problème bi mooy fan lañ ko jëlee ñenn ñi ñu ko jëlee ci as-suffa mooy ahlu suffa yi nekkoon ci jàkk yonente bi alayhi salatu wasalaam ñu tuddeewu leen ahlu suffa ndax bërëb boo xam ne dañ yonente bi alayhi salatu wasalaam daf leen faa ñu nekk fa ñu xam leen ci ahlu suffa loolu ñi ko wax ci définir wala boog wax baatu ak tasawuf fan la jóge dañ ci bëgg liñ ci namm mooy bëgg a delloo amuk tasawuf ci jamono yonente bi alayhi salatu wasalaam loolu nekkul lu wér ci jamono yonente bi alayhi salatu wasalam ñu nekkoon ci suuf fa ñun ay nit yu ràññeeku ci lenn ci seen doxalin ak ña ca des ci saxaaba yi au contraire magi saxaaba yi gënoon ci saxaaba yi sax bokkuñu ci ñoom nekkuñ fa woon am na lenn ci saxaaba yi tumuranke woon ci wàllu kër dëkkin ak alal yonente bi alayhi salatu wasalam dalaloon fa ñu nekk fa ngir ngant darura moo leen fa yóbbu woon ñu ci bari ci ñoom ginnaaw bi bi seen anam nekkee ci beneen anam ñu soppeeku suñu situation changé dañ faa jóge daal di dem sañ ci seen i kër dëkk fa am na ñu bari ñu fa jaar ci saxaaba yi jàll kon nekkul woon ne ahlu sufa dañ nekk ay nit yoo xam dañu am benn doxalin ak benn euh, nekkin bu leen wutale bu particulier ba tax ñu tuddee leen ahlu sufa ba nit di askanewoo ci ñoom ñu koy tuddee maa di ko askanale ci ñoom kon du woon pensée ak benn philosophie boo xam da nga koy suivre pour bokk ci ñoom kon naka la nit mën a ñëwee ginnaaw bu place boobu existé tule di sukk askanale boppam ci ñoom loolu nekkul lu wér beneen bi ci des ba pare suufa ci boppam suufa baatu suufa dëppoowul ak suuf yi suuf yi suuf yi bi nga xamante ne ñoom moom la ñuy jëfandikoo ñeneen ñi waxaat ne as safa mooy làpp ak laab ndax comme ñoom dañuy yittewoo wàllu laab laabu biir ak mel noonu laabu xol loolu dinañ ci ñëw ci ne yooyu yëpp lu baax la laabal sa biir laabal sa xol lu baax la lu lislaam la waaye ci ban anam ak ci ban déggin ñenn ñi ne kon as safa ci la jóge waaye safa bu fekkee ci la jóge kuñ ci askanere kenn du ko wax suufi bu boobee safa yi la ñu wi wala safawi wala safawi immaa nga ne safawi safawi wala safa yi ñeneen ñi ne as saful awwal mooy jaamikati yàlla yi ñu nekk ca rang bu njëkk ba nekk ca kanam loolu lay tekki as saful awwal léegi boo bokkee ca sàppe bu njëkk ba ñu tuddee la yi as-saful awwal moo tax kenn ci ñoom di wax ne nit ki bu góorloo ba labal ba ba setal biiram ba biiram set loolu da koy yóbbu mu nekk ci sàppe bu njëkk ba nga xam ne kon ñaari tur yooyu dañoo am lëkkaloo guñ lëkkaloo muy as-safa wa saful awwal parce que nit ki bu amee safa safa googu muy laab googu moo koy yóbbu ci mu bokk ci sàppe bu njëkk ba mais même tamit ñaari wax yooyu yëpp benn wéru ci ndax as-saful awwal ku ca bokk boo ko dee askanale doo wax suufi waaye saf fii ngay wax beneen bi ci des bi ñu mujjee wax te mu xëy na gën a not mooy ne ci suuf la jóge muy lenn lenn lu tax ndax yére yi ñu daan sol yi ñu ràbb ci lenn ndax comme ñoom dañoo dëddu àdduna wala boog dañoo bàyyi àdduna ndax dëdduwuñu àdduna waaye dañoo bàyyi àdduna dañ daan bëgg di def mbir yoo xam ne yu leen di métitel la ak mbir yoo xamante ni du nekk luy neex ci bàkkan ba tax dañ daan sol ay yére yu ñagas yoo xam ne du nekk yére yu rafet du nekk yére àdduna du nekk yére yu taar waaye dañ koy sol rek ngir xëy na muur seen yaram ak timit léeg-léeg sax mettital seen yaram ak wane seen dëdd goo xam ne dëdd nañ ko àdduna moo tax ñu daan taamu lenn ci ay xeeti yére di yére bu ñu ràbb ak leen ñu koy sol loolu moo tax ñu leen di wax suuf yi mu nekk nisba ila suuf mu nekk lu ñu leen di askanale di leen ci jëmale ci suuf waaye jëm mi baaxoo benn xeeti yére di ko sol ndax am pas-pas boo ca lonk loolu nekkul lu wér ci lislaam jëmmi màndargaal sa bopp ci benn yére boo xam ni dafa am loo ca fas moo xam ngëneel wala ak mbaax boo ca jàpp ba tax nga koy sol nga xam ne jëmmi col gi dafa mel ne jaamu yàlla la ci yow loolu wérul ci lislaam comme ni ko cheikh lislaam téemi rahimahullah di waxee yonente bi alayhi salatu wasallam daawul taamu benn xeetu yére ci yére yi di ko sol ci façon boo xam ne daf cee am ngëneel gum ci jàppoon ne da caa ne te newul ci yeneen yére yi lu jàppandi woon rek ci xeetam loolu la daan sol ci jamonoom lu dul loo xam ne dafa waroo ak jàngaley lislaam ci wàllu solin yére boo xam ne yére yi puukare la yére boo xam ne yére yi fës la yére boo xam ne dañ koo xam ci yéefar yi mu ñu ràññeeku ci ba ko ko sol soo moytul ñu jaawale la ak ñoom xeeti yére yi da ko daan wattandiku wa illaa li nit ñi di sol la daan sol daawul ràññeeku ci benn xeetu yére boo xam ne daf ko daan taamu am mbaax gum ci foog ba tax mu koy jël di ko sol beneen bi ci des mooy jëmmi leen boobu yonente bi alayhi salatu wasallam mës na koo sol ci benn yére bu ñuul boo xam ni Aïcha nee na leen boobu lañ ko ñawee lañ ko ràbbee mu sol ko bi mu ci ñaqee xet gi soppeeku xet gi naqari ndax euh, ni muy nekkee comme nilon nga ñaq ci dafay am xet mu summi ko ndax yonente bi alayhi salatu wasallam bëgguloon xet goo xam ne xet gu naqari la kon moom si boppam taamuwu ko woon sax aslan daan ko sol benn yoon la ko mos a sol bi mu ci ñaqee xet gi soppeeku mu daal di koy summi bu dee nag ci définir ko ci wàllu tëralin ak déggin lu jafe la ndax dafa nekk doxalin boo xamante ni tënkuwul ci leen tegul ci ay baas yoo xamante ni ñoom dañ ko dañ koo tëral di ci jaar di ci natt seeni seeni jëf ak seen i wax ba tax nga mën a dellu ci loolu pour mën leen jox benn définition dafay jafe ndax géeju ndaayaan la goo xam ne amul fu mu teeree ji lépp a ngi ci ba tey jii ay mbir ciy judd di ci bokk yoo xam ne xëy na nekku ci woon ba baa bu xëy na suba sax bu ñu paree ci wax ji fii dina am yeneen mbir ci yor yokk xam nga loolu léegi boo ko bëggee définir dafay jafe ndax kenn tënk ko ci lenn loolu moo tax euh, benn waay dafa laaj sahl ibn abdillah ak tasturi ne ko man ashab kan laay àndal mu ne ko alayka bi suufiya àndal ak ñooña ga yooyu ñuy wax as suufiya mooy ñiy ci suuf fa innahum la yastakthiruun wala yastankiruuna shay'a wa li kulli fi'lin indahum ta'wil fa hum bi ibn Abdillah ne ko àndal ak ñoom ndaxte ñoom duñ la sonal ak ay laaj boo defee duñ la ci laaj lu tax nga def nangam lu tax nga def lii lu tax nga def lii soxlawuñu daliil ndax seen i delluwaay ak seen i balluwaay ci diine fi ñuy tibbee di def dafa bari te du lépp lañ mën a expliquer moo tax duñu la laaj benn ñaareel bi ci des mooy boo defee dara itam duñ ko bañ loo def duñ ko bañ ndax daf ko wax ne anam boo nekk wala jëf boo def ak lu mu ñaaw ñaaw ñoom mën nañ koo interpréter ba ki ko def ñu utal ko ngant loolu mooy li ñuy dégg fii ci loo xamul maandu ca ñoom loolu mooy seen philosophie mooy moo ko def xëy na am na lu tax mu def ko ak lu mu ñaaw ñaaw ak lu mu waroo waroo ak l'islam boo ko defee da nga naan comme xawma lu tax mu def ko danga ciy maandu léegi xamoo lu tax mu def ko laaj ko lu tax mu def ko loolu dañ naan la bul ko def bul ko laaj léegi comme comme xamoo lu mu def ko ñàkk xam boobu moo tax amoo sañ-sañ ci bañ ko te loolu nga ñàkk xam tamit amuloo sañ-sañ ci laaj loolu la Sahal bin Abdillah expliqué fii moo tax ci beneen solo guñ solo ci moom daf ne ko fa inna li kulli fa inna lil qabih indahum wujuhan wa maadir jëf lu mu ñaaw ñaaw ci ñoom am na nuñ ko mën a interpréter nañ ko mën a tawiler ba comprendre ko ba ki ko def ñu utal ko ngant lu mel noonu nag di ci wax pour nga wax ko ci façon boo xamante ni da koy tënk définir ko ci façon boo xam dafay leer ci ay règle daal di dem dina jafe trop da ngay léeg-léeg dellu rek ci seen jëf yi gën a fës yi nga xam dañ ciy sukkandiku gën leen a ràññetle ñoom ak ñeneen ak seen wax yi nga xamante ni daanaka ci la li ëpp ci seen pas-pas aju nga tudd loolu boo ko tuddee ñu xam ne kon ñoom nga bëgg a wax mais mënoo ko def defi parce que dañuy wax ne min charti taarif an yakuna jaamian maanian booy définir dara foog yi ci dugg yépp da nga ko cee war a laawaale ci biir définition bi ñag tamit définition bi de sorte que lu ci bokkul waru ci dugg dafa war nekk jaamee wa maania mais tariqa bu mel ni nga xam ne ndànd foy foy la géeju ndaayaan gu amul fu mu teeree la pour nga defal ko définition bu ko tënk day jafe moo tax ñi ko définir boo gisee definition yi bari ku nekk dangay ngay tudd lenn sa moroom tudd leneen sa morom tudd leneen morom tudd leneen ku nekk dangay xool lu gën a ràññeeku rek nga tudd ko définiree ko ko mais définition boobu du mën a nekk daruratan loo xam ne dafay ëmb ñoom seen doxalin yépp Euh, as-Siraj dafay wax ne laaj nañ lenn ci seeni njiit ci mu mutasawifa yi pour ñu définir leen lan mooy tasawuf nee na mu tontu lu tolloog téeméeri tont yoo xam ne benn bokk ci ak sa morom pour jéem koo expliquer ak jéem koo téeméeri tontu moom ci boppam ci téereem mu tudd lu war a tolloog fanweeri tontu fanweeri définition yoo xam ne benn bu ci nekk définition la ci lan mooy ak tasawuf al-Qushayri ci risalaam bu siiw bi ñu tuddee a risalatul Qushayriya indi la indi na moom itam lu tolloog juróom benn fukki definition yoo xam ne benn bu ci nekk da ciy définir lan mooy at tasawuf as-Sahrawardi di wax ne wa aqwalul mashayix fi mahiyati tasawuf tazidu ala alfi qawl as-Sahrawardi nee na li seen borom yi xam-xam kilifa di wax pour mën a leeral lan mooy tasawuf dëgg-dëgg xaqiqati tasawuf mooy lan nee na ëpp na junni wax junni wax ëpp na ko yoo xam ne benn bokk ci ak sa moroom sens yoo xam ne benn bu ci nekk pour expliquer la xaqiqatu lan mooy dëgg-dëgg tasawuf loolu moo tax kon mu nekk lu naqaree saytu lu naqaree peeg waaye dañuy tudd lenn ci ci ko définir yenn définition bu ñu paree ñu xool définition yépp lan lañ ci mën a tënk comme ay règles générale yoo xam ni xëy na ci gën a ràññeeku ci seen doxalin ci la bokk Bishr al bi muy définir tasoo as suufi ndax léeg-léeg dañ koy définir ci ki koy def comme léeg-léeg dañ koy définir ci doxalin bi mooy li ma doon wax sànq ci tàmbali waxtaan bi ak tasawuf wala as suufiya moom ne as suufi man safa qalbuhu lillah kon ak tasawuf mooy tasfiyatul qalbu lillah as suufi mooy ki nga xam ne xolam dafa laab ngir yàlla subhanahu wa taala laab ci lépp ba mu des borom bi subhanahu wa taala kon bu boobaa tasawuf mu idéologie bi doxalin bi mooy laabal xol te yàlla tax tasfiyatul qalbu lillah sahal ibn abdillah bi ñu doon wax léegi ak tasturi daf ne assuufi man safa min alkadar wa mtalaa min alfikr wa nqataa ila allahi min albashar wa stawa indahu aldahab walmudar daf ne suufi daal mooy koo xam ne dafa laab ci lépp loo xam ne ay taq-taq la fees dell ak ay xalaat fees dell ak ay xalaat dog nit ñi jëm ca boromam subhanahu wa taala dog mbiri àdduna jëm ca boromam subhanahu taala yamale suuf ak or yamale suuf ak or maanaam mbiru àdduna ak mbiru alal ak yooyu yitteelu ko nee na mooy ki nga xam ne mooy ab suuf yi kon nekk ci anam boobu wala yar sa bopp ngir àgg ci anam boobu mooy ak tasawuf Junayd doon wax naan at tasawuf an takuna maa allahi taala bila alaqa mooy tasawuf mooy nga nekk ak yàlla ci anam boo xam ne da ngay dem ba doo am intermédiaire bu dox sa digganteeg moom dara dootul dox sa digganteeg sa borom mooy ittihaad bi nga xam ne mooy seen objectif mooy dem ba jeex ci yàlla boo jeexee ci yàlla da nga koy doon ndax boo demee ci mbir ba jeex ci mooy doon nga ko jeex yooyu ngay jeex ci yàlla ñu naan diw dafa jeex ci yàlla dinañ ñëw ci kanam ci ay xaajam ak ay façon ci seen doxalin ñoom ak seen déggin arrouze bari dafay wax ne assuuf yi man labisa suuf ala safa wa salaka tariqa almustafa wa atama alhawa dawqa aljafa wa kanat addunia minhu ala alqafa dafay wax ne ab suufi muy abi ali arrouze bari mu ne koo xam ne ab suufi la mooy koo xam dafay sol suuf muy leen boobu ñu doon wax ala safa ci kaw laab mooy ci kaw laabal xolam ci kaw yar bakkanam ak laabal bakkanam kon yooyu muy def ci wàllu biti ci wàllu colam ak tilim beeg ñàkk yittewoo taar bi dafay nekk ngir yar bakkan bi ak laabal bakkan bi daldi soobu ci yoonu yonent bi alayhi salaatu wasalaam mu ñamal bakkanam lu metti ñamal bànneexam lu metti ak tàmmal ko lu metti yar ci loolu bàkkanam bakkanam di wan ginnaaw àdduna wan gannaaw àdduna wa kaanat dunya minhu ala alqafa ashibli di wax ni at tasawuf shirkun li annahu siyaanatu alqalbi an alxayri wala xayr keneen di wax ne tasawuf bokkaale la li tax mooy ne tasawuf boo ko xoolee jubluwaay bi mooy nga laabal sa xol ci leneen te mu ne leneen amul lenn moo fi nekk looy laabal sa xol newu fi kon jarul laabal xol léegi boo saxalee beneen mbir boo xam ne jàpp nga ne da ngaa war a ñàkk sa xol sa digganteeg loolu laabal ko ci kon mooy saxal nga beneen existence te benn existence moo am loolu dinañ ci ñëw ci kanam mooy aqidatu wahdatil wujud kon shirk la aljeylaani di abdul qadir di wax ne al mutasawif wa suufi am na seen diggante farq mu ne mutasawif ak suufi am na seen diggante farq mu ne amal farq bayna al mutasawif wa suufi fa al mutasawifu al mubtadi wa suufi al muntahi al mutasawifu shaaricu fi tariqi al wasl wa suufi man qataca tariqa wa wasala ila man ilayhi al qatcu wal wasl mu ne mutasawif mooy ku nekk ci tàmbali bi di góorgóorlu di nekk di jaamu yàlla nekk ci yoon wi waaye mu ne suuf yi mooy ki nga xam ni dafay jaar ci yoon woo xam da koy burleel étape yooyu dafay dog yoon wi ci kaw dafay jël yeneen lu mel ne ay raccourci jaar ca kaw daal di àgg ca borom ba nga xam ne moom mooy jokk ku neex mooy dog ku ko neex kon nga gis déggin bi jubluwaay bi mooy lan mooy ut ay yoon yoo xam da nga ciy jaar yoo xam ne yi nit ñi nit simple di jaar yow soxlawuloo ko yeneen yoon yu la yàlla ubbil ci kaw la ay raccourci lu mel ne nga nekk ci benn bureau di liggéey rang bi nekk sa kanam nit ñi di ñëw kenn par kenn nga def nii seen sa benn waaye na ko saawaay jaaral ne yow ubbil ko benn buntu mu dugg daal di agsi ci yow nee na loolu moom mooy dëgg-dëgg jubluwaayu tasawuf léegi ci loolu bu fekkee xool nga définition yooyu nga xam ne tudd nañ ko Cheikh Mouhamad ci taq taqdisul ashxaas te lu ci bari ci seen yi wax am na ci lu ci bari ci moom laa ko sukkandikoo fa laa ko jëlee ndax njàngat bi mu ko jàngat moom ala kulli xaal daanaka booy wax foog nga dellu ci moom allah yaxfaduhu wa yajzi dafa tënk ci définition yooyu nga xam ne jàll na ci tasawuf ay tënk yoo xam ni mën nañu wax ne loolu nañ ko jàppee comme ay règles yoo xam ni tasawuf du ko génn bi ci njëkk mooy al mubalagatu fi taqashuf mooy jéggi dayoo ci bàyyi àdduna ndax ñoom li ñuy def du dëddu àdduna waaye bàyyi àdduna la ndax dëddu àdduna mooy li yonente bi alayhi salatu wasallam jàngale woon ci moytandiku lépp loo xam ne poñatum àdduna la ak taaru àdduna bañ la yóbbaale mais terewul danga war a taxaw àdduna danga war a taxawal àdduna ndax loolu moo tax yàlla indi ñu fi l'islam dafa am cër ci lu bari loo xam ci àdduna bi moom moo ko war a saytu moo ko war a jiite moo ko war a yilif bu amul góor ñu dund l'islam jooju taxawu àdduna boobu loolu dafay nen te loolu bu neenee rek ak matadi ak wàññeeku lay doon ci l'islam ba tax na kon dañoo war a taxawu àdduna kon wareesul bàyyi àdduna mais warees na dëddu àdduna ci ne poñetam ak taaram ak mbiri caaxaan yi fi ne nit ki bàyyi ko yar ci bakkanam ci loolu ñoom nag dañoo ñëw bàyyi àdduna tax ñu neenal lu bari ci loolu te loolu bokk ci lislaam mu nekk kon ak wàññeeku ci foo xamante ne dañ yaakaaroon ak mat lañ fa bëgg loolu dina ñëw ñu junj ko ci lu mel ne li daloon Ousmane ibn Maz'un bi mu moog gaayam yam àndaloon ñëw ci këru yonente bi alayhi salatu salaam bi ñu laajtee ay mbiram bañ wax leen ko dañ koo mel ne ku xeeb ñu ne moom xëy na fa mu àgg moo tax mu doyloo lii ñun nag nañ góorgóorlu yokk ci loolu ñenn ñi si ñoom warlul seen bopp ne dootuñ takk ay soxna kii ne man dootuma nelaw guddi kii ne man damay woor dootuma dog daf leen delloo gannaaw ci loolu ndax yàlla da koo sant mu ñëw taxawal diine ci kaw àdduna àdduna bii fi lay dund fi la war a taxawal diine kon waru koo bàyyi ñoom nag seen jub dégg-dégg yépp ci wàllu yar bakkan ci wàllu àdduna du dëddu àdduna muy zuhd bi nga xam ne li muy namm mooy àdduna ne sa kanam nga waroon koo mën a topp topp ay bànneexam ak ay caaxaanam nga bàyyi loolu yar sa bakkan dox sa diggante ak sa bakkan ci loolu te terewul warugar yi war sa diggante ak àdduna nga taxaw ci ñoom dañ yaakaar ne zuhdu maanaam mooy nga wan gannaaw àdduna mooy bàyyi àdduna neenal yi nga xam ne daf la war sa diggante àdduna boobu beneen bi ci des mooy déggin yi nga xamante ni gis nañ ko ci wàllu am déggin bu xóot bu sori boo xam ne dafa làqatu nit ñi xamuñu ko ñu jox ko lislaam nga xam ne nit ki pour mu mun cee àgg am na ci yoon yu yu ruqe yu mu war a jaar yoo xam ne ci lay àgg ngir mën a atteindre ay objectif am ci lislaam mu nekk ne kon lislaam ji léegi am na luñ ciy gis ci kaw mais am na li ci kaw li ci kaw am na leneen lu nekk ca gannaawam loo xam ne am na ay yoon yu nit ki war a jaar ba découvrir loolu nekk ca gannaaw loolu nag lépp ci li ñuy def loolu mooy si seen objectif mooy loolu nga xam ne jàpp nañ ne lu nëbbatu lu làqatu la ñu xam loolu lan la ndax jàpp nañ ni boo ko xamee ci ngay gaaw a mën a jotee say objectif beneen bi ci si ba léegi règle générale yooyu mooy taqdisul ashxaas mooy di jéggi dayoo ci ay nit fi leen di teg ci wàllu ngëm-ngëm wàllu bëgg wàllu ragal ak wàllu laabal ak sellal nit ki bàggale ko foo xam ne weesu na dayoo ba nga ko waroon jox loolu tamit ci seen melokaan ak seen mandarga yi ñu gën a ràññeekoo ci lislaam loolu bokk na ci mooy jéggi dayoo ci ay nit nit ñooñu ñan lañ ak lan yan mbir lañ leen di defal ak lan lañ fas ci ñoom ba tax ñu wax loolu loolu dina ñëw insha allahu taala ci li ñuy wax ci seeni jëf ak seeni mbir jaamu yàlla subhanahu wa taala jaamu goo xam ne nit ki jubluwu ci jaamu yàlla ngir wattandiku merum borom bi meru ak mbugalu borom bi nga xam ne mooy jëmmal meram ak am aljanam gi nga xamante ni mooy fayam bi nga xam ne mooy jëmmal ngërëmam ak yërmandeem jaamuwuñ ko ngir ñaar yooyu ñoom dañ jàpp ne kuy jaamu yàlla ngir ñaar yooyu sax njaamu dafa matadi ñenn ñi sax dañ lay tuumaal shirk bokkaale ndax nee nañ loolu ay mbindeef lañ comme yow waroo jaamu yàlla ngir ñoom waaye dañuy jaamu yàlla subhanahu wa taala ñoom ci niñ ko waxee ngir jeex ci yàlla ndax dañoo bëgg yàlla bëgg goo xam ne weesu na bëgg waaye nopp la muy bëgg a dem ba nekk yàq yàlla benn dem ba àgg boo àggee yéen ñaar ngeen tappaloo nekk benn nga nekk yàlla subhanahu wa taala ñoom loolu mooy seen objectif beneen bi ci des mooy ubbi buntu ay tëral ak ay doxalin ci lislaam yoo xam ni yàllaa ko yoonam tam santaane wuñ ko ndax bi nga xamante ni am nañ objectif yooyu ñoom dañ koo bëgg utal ay doxalin ak ay yoon yoo xam ni buñ ca jaaree moo ciy àggale ci anam bu gaaw tax lu bari ci ay yoon ak ay mbir ñu koy fent di ko tëral te jëlewuñ ko ci yàlla akub yoonam tam ci anam boo xam ne bu wér la même bu ñu woote woone ci lañ ko jële waaye yoon yi ñu koy jaaree ne fa lañ koy jële nekkul yoon yu sukkandiku ci lislaam beneen bi ci des mooy àgg goo xamante nit ki bu ko defee àgg gu nga xamante nit ki bu ko defee l'islam dootu ko gàll dara dootu ko teg dara yi daganoon yi xaramoon mën na koo def bu ko bàyyee dafay am lu tax mu bàyyee ko moom lay neex mu bàyyee ko yi nga xamante ni moom lañuy ñuy sàkku ci nit ñu def ko bu ko neexee mu def ko ngir ay mbir ngir masla ak ñi xamul waaye mën na ko sax bañ a def mën na ko sax bañ a def loolu daal ci gàttal mooy yi nga xamante ni boo ko seetloo dëgg-dëgg mooy yi fonde lal loolu nga xamante ni moom lañ tuddee ak tasawuf mooy doxalin boobu ci lislaam te am ay nit yu ca askanale seen bopp bopp ak lañ cee wax lépp ci ay mbir di ko tagg ak fañ ko teg boo ko seetloo mbir yooyu génn ko léegi nag la chaque ne kuy wax ci benn kuréel ci kuréelu lislaam yi war nga maandu ndax nit ku nekk booy wax wa ida qultum faadilu nit ki booy wax dangay ngay maandu ci lislaam xëy na ñàkk bokk ak ay nit fa nga euh, bokk dégg-dégg ci lislaam wala doxalin warul tax booy wax ci ñoom ngi wax ci ñoom ci anam boo xam da nga leen di tooñ di leen waxal sax xëy na loo xam ne ñoom waxuñu ko wala gëmuñu ko wàllu li nga xamante ne bi moom mooy tasawuf cheikh lislam taymi rahimahullah dafay wax ne lafdul faqri wa tasawuf qad udxila fihi umurun yuxibuha allahu wa rasuluhu mu ne fa tilka yumaru biha wa in summiyat faqran wa tasawufan li anna alkitaba wa sunnata ida dallat aw ida dalla ala istixbaabiha lam yuxraj dalika wala lam yuxraj dalika bi an tusamma bismin axar kama yadxulu fi dalika acmalu lqulubi kaltawbati walsabri walshukri walrida walxawfi walrajai walmahabati walaxlaaqi almahmuda wa qad udxila fiha umurun yakrahuha allahu wa rasuluhu kama yudxilu fihi bacdu bacduhum alxulula walitixaad wa axaruna nawcan min alrahbaniyati almubtadaca fi lislam wa axaruna nawcan min muxaalafaati alsharica إلى أمور ابتدعوها إلى أشياء أخرى فهذه أمور ينهى عنها بأي اسم سميت Cheikh Lislaam dafay wax ne baatu tasawuf ak faqr bi ñuy jëfandikoo ci seen doxalin boobu mu ne dugal nañ ci ay mbir yoo xam ne yàllaa ko bu yoonam tam bëgg nañ ko léegi bu boobaa mooy war bu fekkee da nga gis ay nit yoo xam ni dañ jël doxalin boo xam ne muccul ayib ci lislaam ba noppi ci seen doxalin boobu ñu boole ci mbir yoo xam ne da nga koy fekk mu sax ci alquran ak sunna ko bu yoonam ko ndax leeral gooy leeral seen réer ak seen njuumte ci seen doxalin day tax mbir yooyu nga boole ko askane leen ko rejeté ko yow loolu wérul loolu xayru saxiix li diggu doomu mooy bu fekkee am na lenn ci ci seen mbir yooyu ñuy woote woo loo xamante ni gis nga ko mu am cosaan ci alxuraan ak sunna nga leeral lool ne mbir yu baax la mbir yu dëgg la yu ñu war a digle buñ ca soppee lenn ñoom ci déggin ba wala ci tur ba nga jubbanti loolu ñoom buñ nee définir ko al ihsaan nga ne ihsaan am na lii mooy ihsaan ihsaan laa koy tuddee définition bi ko yonent bi jox loolu laa koy jox kon ñoom bu ñu ci amee définition boo xam ne njuumte la da nga koy dindi bu ko joxee beneen tur nga bàyyi tur ba ndax loolu moo gën mooy nga tuddee ko tur bi ko lislaam jox ngir bañ a ñoom ak ngir bañ a indi confusion ci bopp nit ñi ndax ñoom dañ koy tuddee tur yoo xam ni mënees na cee déggee njub comme mënees na cee déggee loo xam ne du njub te loolu bu amee rek li gën mooy nga delluwaat ci li ko yàlla joxoon subhanahu wa taala ak yonentam alayhi salatu wasalaam mu ne kon am na ci ay mbir yoo xam ne ci wàllu yar bàkkan yar raxas xol muñ def lu baax ak yu mel noonu mu ne yooyu yàlla ak yonentam bëgg nañ ko moo xam ñu tuddee ko tasawuf tuddee ko lu ñu ko mën a tuddee ay jëf yu baax la ñun tur bi lu ñu jëf ju baax la joo xamante ni ku ko def ci anam bi ko yàlla ko bu yonentam diglee anam bi def dañ ciy insister bu baax ndax du doy rek nga dëppoo ci moom ci jëf bi mais ci jëfin bi tamit day am solo ndax lu bari ci jëf yooyu yoo xam ñoom dañ koy woote woo li lay utale ak ñoom wala fi problème bi nekk mooy jëfin bañ koy jëfee ñoom te jëfin ba day dellu ñoom déggin biñ ko jox ba tax na kon même bu fekkee astu jëf bi mu ngi ci alquran ak sunna ñun dañ koy nangu ci jëfin bi nga xam ne mooy jëfin bi jub bi mucc ayib bi nga xam ne njuumte newu ci mu ne nag comme ni nga xamante ni tamit lafdu boobu di tasawuf ak faqar yooyu tur yooyu ñu jëfandikoo ñoom ñi nga xamante ni tamit ba léegi dugal nañ ci yeneen pas-pas yoo pas-pas yu bon la yoo xam ne lu bari la yàq ci l'islam muy lu mel ne pas alxulul ak al ak lu mel ne wahdatul wujud loolu dinañ ci ñëw ci kanam insha allahu taala muy jàpp ne yàlla subhanahu wa taala dafay dem ba bennoo ak mbindee fii ak façon bennoo yi am wala yàlla subhanahu wa taala dafay jaxasoo ak mbindeef yi wala sax moom mooy jëmmi mbindee yi ak jëmmi bàyyi àdduna bi ñu doon wax bàyyi àdduna bi nga xamante ni ñu ngi ko jëlee ci nasaraan yi bàyyi àdduna du dëddu àdduna waaye bàyyi àdduna boobu nga xam ne dañ koo sos indi ko ci lislaam te yonente bi alayhi salatu wasallam waxoon ne bokkul ak yeneen ci ay doxalin yoo xam ne dafa waroo ak li lislaam yoonal ci ay wute goo xam ne wute nañ ko ak lislaam mu ne yëpp dugal nañ ko ci ay mbir yoo xam ne ay nit a ko sos mu ne loolu yëpp des koy tere ak nuñ ko mën a tuddee kon bu boobaa nit ki bu fekkee dafay wax di wax ci doxalin boobu nga xam moom lañ tuddee ak tasawuf baax na mu Euh, am tamit ak maandu ak diggu doomu goo xam ne dana ko am ci settantalam bu fekkee romb na lenn ci seen i jëf yoo xam ne am na cosaan ci alxuraan ak sunna même ñoom buñ ca juumee ca doxalin ba wala ci déggin ba loolu xëy na du ñàkk nit ki leeral ko waaye du boole lépp rejeté ko ndax loolu la Cheikh al-Islam rahimahullah di tuumaal léeg-léeg yenn ci tawaif yi nga xam ne mu yenn kuréel yi nga xam ni dañoo ñëw di dàggasante ak ay nit yoo xam ne dañoo jàpp ne dañoo réer waaye ñooñu li ñuy réer réer lépp seen wax am na ci loo xam ne njub am na ci loo xam ne dëgg la mu ne waaye ñu ñëw boole yépp àndandoo ko daldi koy rejeter te leeraluñu leeraluñu ndax dangay ngay ñëw rek rejeter ndoo lépp leeraluloo la cay dëgg même bu fekkee lu sew sew la ak lu mu tuuti tuuti nga seppi ko leeral ko loolu da ciy baax mu ne sinon boo ko defulee da ngay tàbbi ci bidaa yow sa bu jëmi bopp ndax mu ne boo dee tontu koo xamante ni dafa tàbbi ci bidaa te mu ànd ak ci waxam lenn loo xam ne dëgg la nga boole lépp di koy sànneendoo mu ne yow tamit tàbbi nga ci bidaa te yëguloo ko loolu pour bañ dugg ci loolu moo tax dañuy def ndànk tamit ci lenn seen yenn wax ak yenn jëf yi nga xamante ni am na ci lu ci mën a nekk dëgg duñ ñoom nañ ko waxee ak nañ mu nekkee dëgg la am na ci lu ci mën a nekk dëgg doxalin boobu ak ñooñ nga xam ne ñooy wax wax yooyu ak am gis-gis boobu ci lislaam kañ lañ tàmbali di gis doxalin boobu ak déggin boobu ci lislaam loolu dañuy bàyyi kenn ci ñoom ci seen njiit yi seen kilifa yi muy abul qasim al qushayri yi mu wax ci mooy qushayri bi ñu doon wax léegi sànq ci ci définition yi mu ne yalamu rahimakum allahu taala an almuslimina bada rasulillahi sal allahu alayhi wa sallam lam yatasamma afadiluhum fi asrihim bi tasmiyatin bi tasmiyati alamin siwa suxbatu aw suxbata rasulillahi sal allahu alayhi wa sallam id la fadilata fawqaha fa qila lahum alsaxaaba wa lama adrakahum ahlu alasri althani tasamma man saxiba saxaabata lahum bittaabiin summa ixtalafa annaas wa tabayanat almaratib fa qila li xawaas annaas ila axiri kalaamihi dafay wax ne jamonoy yonent bi alayhi salaatu wasalaam ñi fi nekkoon ànd ak moom ay saxaaba lañ leen doon tuddee mooy comme li ñu junjoon sànq suñ tàmbali waxtaan mu ne ñooñ biñ fi nekkee ci siècle bu njëkk bi ba jóge fi muy al qarnul awwal nga xamante ni ci lañ faatu am na ci benn jamono seen génération bi mu jàllee muy jiilu saxaaba beneen génération ñëw di ñi nga xamante ne ñoo topp ci ñoom jànge ci ñoom mu ne ñooñ biñ ñëwee ñu ngi leen doon tuddee ak taabiin mooy ñi yaroo ci loxo saxaaba yi mu noonu lañ leen tuddee mu ne saxaaba yi saxaaba rek lañ leen daan tuddee ndax woon benn ngëneel bu nekk bu féete kaw suxba muy daje ak ànd ak yonentu bi alayhi salatu wasalaam ñi ñëw jàngee ci ñoom yaroo ci ñoom saxaaba yooyu ñu leen doon tuddee ay taabiun mu ne ñu dem nag ba ginnaaw loolu ci deuxième siècle bi mu ne ci la nit ñi commencé di tàqalikoo di wute ci diine kon loolu li muy firndeel mooy ci jamono saxaaba yi wute ak tàqalikoo gi amul woon bi na yi ñëwee itam ñu leen tudde ay taabiin tàqalikoo gi feeñagul woon lool biñu demee ba ci ñaareelu siècle bi ci la tàqalikoo commencé am ci gis-gis yi ak yu bari l'islam di gën a yaatu jullit yi seen i dëkk di gën a yaatu ñu bari di tuub dugg ci diine ji ay gis-gis yu bees tàmbali di feeñ ay xalaatin yu bees tàmbali di ñëw ci biir l'islam ndax nañ xam ne futuxaat yi jullit yi doon am muy tijji gi ñu doon tijji ay dëkk di yaatal lislaam ay xéewal yu bëri am na ko ci lislaam lu baax jur na lu bëri jër jur na ko ci lislaam ci lu baax waaye tamit am na ay jeexital yoo xam jeexital na ko ndax yeneen i xeet yoo xam ne ci yeneen mbir lañ leen yaroon ak ci lu ci yeneen doxalin ak yeneen gisin lañ nekkoon ba yar ci ba yaru ci ba ñor ci dañoo daal di dugg ci biir jullit yi tàmbali di jeexital ci xalaateen ak doxalinu jullit yi loolu ñi ci ñi ci mucc à 100 pour cent mooy saxaaba yi yonente bi alayhi salatu wasalam ñu nekkoon ci itam mu yar leen ñi leen gën a jege ku leen gën a jege rek yaa gën a mucc ci jeexital googu bi nga xamante ne ñooñu ñëw nañ commencé indi jeexital yooyu tàmbali di am ci lislaam ci la wute bi tàmbali di feeñ bokk na ci li koy gën a firndeel mooy ku mel ne Abdullah ibnu Saba al yahudi waaye ji nga xam ne dafa ñëw tuub wane lislaamam dugg ci lislaam ci biti la jógee ñëw dugg ak fitna bu rëy bi mu jur nga xam ni tàqalikoo yi gën a màgg ci loolu la daal di juddoo indi ay fitna ba léegi nii kon loolu ci la yoon yi commencé di wute mu bi nga xamante ni dem nañ ba yoon yooyu tàmbali di am nit ñi di tàqalikoo mu ne fa kullu fariqin iddaa anna fihim zuhadan mu ne am kuréel gu nekk di woote woone am na ci ñoom ñoo xam ne dañoo dëddu àdduna mu ne fan farada xuwaastu ahli sunnati almuraacuuna anfusahum aw anfaasahum maa allahi almuxaafiduuna qulubahum an tawaariqi alxafla bismi tasawuf mu ne ñi nga xamante ni bi ñooy jaamikatu yàlla yi nga xam ne ñoo dëddu àdduna te bokk ci ahlu sunna nga xamante ne dañuy sàmm seen lépp ci seen digganteeg seen borom di sàmm seeni i xol seen digganteeg seen borom mën na ñooñu ñoom daal di tudde seen bopp ahlu tasawuf léegi kon loolu li muy li muy wane mooy ay étapes yoo xam ne am na ñu dem ba jamono ay tàqalikoo am ay gis-gis yu bees am ku nekk di woote woo zuhdu mu am ci nit ñi ñoo xam ne dañoo ñëw ñoom pour wane ni dëgg-dëgg ñoom ñooy ñi dëddu àdduna ñooy zuxaat yi nga xam ne ñoo raxas seen bakkan ñoom ñu ñëw génn tudde seen bopp ak tasawuf ngir gën a mën a ràññeeku ak firndeel ne fi'lan ñoom ñooy az-zuhaad mu ne ci ahlu sunna lañ lañ lañ lañ génne xaqan ci ahlu sunna ndax loolu déggin boobu mooy dégginu ahlu sunna bu yaatu bi nga xam ni booy boo xaajee jullit yi ni nga ne chia ne sunna bu boobaa sunna foofu ma mafhumu ahlu sunna déggin bu yaatu lay am parce que ñoom dañuy wax ne képp ku nekkul chia yi rek ci ahlu sunna lañ lay dugal mooy déggin bu yaatu bi moo tax Cheikh Nasir daan wax naan boo day wax ak nit te déggin boobu la am ci ahlu sunna li gën mooy nga ne ko man salafi la parce que day jàpp ne ahlu sunna ay maturidi ak ashaira ak ñoom ñëpp ñu ngi ci biir kon nga ne ko man salafi la kon fii bi muy wax ahlu sunna fii loolu la ci nam mooy kuréel gi nekkul ci ashia te loolu wax ko tamit à cent pour cent du dina jafe ndax xam nañu lu bëri ci seen i pas-pas ñoom almutasawifa bëri na ci lu bëri loo xam ne ci rafida yi lañ ko jëlee bëri na ci déggin yu bëri yoo xam ne ci yi gën nekk yu essentiel yu fondamental ci seen doxalin yu ci bari dañ ko jeexitaloo ci ñeneen bokk na ci ñi gën a jeexitaloo jeexitaloo muy arrafida ci seen yenn ay doxalin ibn xaldun tamit ba léegi dafay wax ci muqaddimaam di wax ne wa hada al ilm muy ilmu mu ne min al ulum sharciyati al xaadisati fi l milla mu ne xam bii di xam-xamu tasawuf dafa bokk ci xam yi nga xam dafa sosu ci lislaam dafa sosu mu wax ci ba wax ne lu saxaaba yi li nga xam ne mooy essentiel u tasawuf di dëgg jubluwaay bi mu ne loolu ci la saxaaba yi nekkoon ak taabiuna yi loolu dinañ ko jéem a démontrer ci kanam ndax li nga xamante ni bi moom la ñuy wax ci wàllu raxas kol xol ak wattandiku àdduna ak yar sa bakkan la chaque ne saxaaba yi ci loolu lañ nekkoon waaye ndax ci déggin bi ci saxaaba yi nekkee woon ak taxawaay bi ci saxaaba yi amoon ak doxalin bi ñu ci amoon ak fañ ca yemoon ñoom ñi woote woo tasawuf bi ñu ñëwee ci tànk yu lañu jaar wala ndax dañoo indi yeneen mbir tuddee ko loolu ndax dañoo indi yeneen doxalin tuddee ko loolu kon li ibnul xaldun xaldun wax ci kaw mën nañ ci ànd ci yi mu cité ci raxas xol yar sa bakkan mooy tëndiku àdduna fi'lan saxaaba yi ci loolu lañu nekkoon waaye ndax ñi woote woo tasawuf ñoom même taxawaay boobu lañu am ci mbir yooyu wala ndax dañoo ñëw jaar ci yeneen yoon di wax na ñoom même objectif yooyu lañu am ba léegi mu wax a wax ba ni fa lamma fasha al iqbaalu ala dunya fi alqarni althani wa ma baada wa janaxa annaasu ila almuxalat ila muxalatati dunya ixtassa almuqbiluuna ala alibadati bismi suufiya mu ne bi ñu demee ba jublu àdduna ak bëgg àdduna tasaaroo ci biir jullit ñi nee na ci deuxième siècle bi ci deuxième siècle bi loolu moo ñu gën a amal solo ci waxam nee na ci deuxième siècle bi bi yàlla defee l'islam ubbi ay dëkk alal ñëw ci biir jullit ñi yàlla may leen ci wàllu am-am ak yu bari nee na nit ñi nag daal di tàmbali di xëccoo àdduna topp àdduna topp buur yi topp nguur yi rek lu bari ci yooyu nga xamante ni bi mi ngi woon ci ñoom ci wàllu yar sa bakkan ak wàllu yittewoo wàllu sa digganteeg sa borom mooy tëndiku àdduna mu commencé di ruus ci nit ñi nit ñi di ko bàyyi nee na ci la ay nit ñëw daldi nag ñoom yittewoo jublu ci yàlla ak jaamu yàlla bàyyi àdduna tudde seen bopp ay suuf yi li ci li ci li ci am solo ci yooyu mooy daf ñu junjal nañu kon ñoom tasawu dafa am lu ko jur dafa am lu mu ñëwoon bëgg koo traité bëgg koo faj bëgg koo saafara utal ko ay yoon ak ay méthodes yoo xam ne na ci lay jaar ngir régler problème yooyu nga xamante ni ay problème la yu amoon ci biir jullit yi ci seen biir société mooy gis tasaaroo goo xam ne àdduna tasaaroo na ko ak nit ñi topp guñ topp ci ginnaaw àdduna ak poñatum àdduna ak taarub àdduna commencé di sàggane jaanibu ak zuhd muy côté wàllu moytundiku àdduna ak yar sa bakkan biñ gisee loolu mu tas ñoom ñu daal di nag ñoom nekk ay spécialiste ci wàll boobu spécialiste ci wàllu boobu loolu moom moo nekk kon jubluwaay bi loolu moom moo nekk tàmbali ba loolu moo nekk kon tàmbali ba mooy kon ma nga tàmbale ci ñëw jéem a fexe delloowaat jullit yi ci ñu defar seen diggante ak seen borom raxas seen bakkan mooy tundiku àdduna ngir bañ a topp ay poñatum àdduna loolu fa la tàmbalee kon ñu ci jàngee ne tasawuf kon nekkul woon lu am ci jamono yonente bi alayhi salatu wasalaam ñi ko définir delloo ko ci ahlu sufa seen définition wérul ci deuxième siècle bi la sosu même ci waxu Qushayri mi nga xam ne ci seen aima yi la bokk mu ne déggee nañ ko ci moom ak wax ci Ibnul Khaldun wax ci deuxième siècle bi la sosu ñenn ñeneen mu ngi sosoo fu mel ne Basra ci Iraq fa la sosoo ci yenn dëkk yoo xamante ne ñu ngi foofa ay suyux yu fa nekkoon ñu xam leen nekkoon ñu màcc ci jaanib boobu loolu ci ñoom lañ ko jële li nga xamante ni moom moo ko jur indi ko mooy li ma wax léegi ci ay jubluwaay gis jeng gu jullit ñi jeng topp àdduna fàtte jawaanib yële muy wàll yële ñu fàtte ko te mu nekk lu am solo ñoom ñu ñëw ngir faj loolu saafara loolu tax ñu ut ay yoon tax ñu ut ay moyens yoo xam dañ ciy jaar ngir saafara loolu léegi mu des ne jubluwaay bi lu baax la kenn du ci werante waaye ndax yoon yi ñu jaar ngir saafara problème boobu yoon yu mucc ayib la ndax yoon ji ñu jaar ngir saafara problème boobu nga xam ne ñoom moo leen taxoon a jóg yoon yu mucc ayib la loolu ci lañuy mën a xamee dëgg dëgg dëgg tasawuf lan mooy dayoom lan mooy mbiram bu ñu juumee lan mooy seeni njuumte ak seen njuumte yooyu ban jeexital la am ci lislaam ak lan la mën a am tamit ci lislaam ba léegi bu fekkee dañu bëgg xam kon tasawuf ci kon philosophie bi lan la jubluwaay bi lan la mooy li ñu wax léegi ñi jugoon ci jamono ne dañu yar seen bakkan loolu moom moo ko tàmbali mu des ndax loolu moo continuer di nekk naka jekk jubluwaay bi ak itam képp ku ci dugg loolu moo la ci dugal yàlla moo xam am na ci ñoo xamante ne léeg-léeg dañu dem ba borom xam dañu leen di tuumaal tuuti ndax tasawuf dafa mujj dem ba nekk bunt boo xam ni ku bëgg a am say toj-toj yooyu def ci lislaam rek ci ngay jaare ndax comme géeju ndaayaan la goo xam ne amul fu mu yem lu neex waaye mu indi lu neex waaye mu woote woo loolu dafa nekk bunt boo xam ne dafa nekk benn faiblesse bu mu indi ci ci ci wàllu lislaam ba nga xam ñu bari ñu bëgg a yàq lu bari ci lislaam ci lañ koy jaaree ba ci jamono yu mujj yi ci wàllu colon colon yi colonialiste yi bi ñu ci suñu dëkk yeeg yooyu yooyu yëpp allah xëy na dinañ ci junj tuuti ci biir waxtaan bi. ci wàllu doxalin bi ak yoon yi yiñ jaar ngir saafara problème boobu ak ngir seen jubluwaay yooyu ñu am ñu daal di koy jot ci loolu incha allahu taala la ñuy waxtaanee euh, thème bi nga xamante ni bokk boog euh, sujet bi nga xamante ni moom la mbokk bi allah yahfaduhu introduire. li ñuy njëkk a wax mooy li ibnul majishun nettali jële ko ci malik mu ne sami'tu malikan yaqulu man ibtadaa fi lislami bidaatan yaraha xasana faqad zaama anna muhammadan sallallahu alayhi wa sallam xaana risala li anna allaha yaqul alyawma akmaltu lakum dinakum fama lam yakun yawma idin diinan fala yakun alyawma diina li ñuy tàmbalee loolu mooy teg yenn principe ak yenn mbir yoo xam ne ci lislaam moom la ñuy ci wax waxtaan bi laata ñuy waxtaanee ñoom seen yoon yi nga xam ne jaar nañ ca ngir seen objectif yooyu ñu am Malik rahimahullah dafa wax ne képp koo xam ne da ngaa sos ci lislaam aw yoon wala aw déggin wala ab pas-pas ndax sos ci lislaam weesu na rek di yem ci jaamu yàlla boo xam ne benn jëf la ni du ci buntu jëf rek la sos di am même ci buntu pensée wàllu philosophie wàllu doxalin bi nit ki di doxal ci lislaam maanaam ni muy déggee diineem ak ngëm-ngëmam ci lislaamam foofu nit daf fay sos ndax nit bu sosee aw yoon ab doxalin doxalin la boo xam ne du rek ay jëf waaye jëf yi dafa am dégg-dégg ak pas-pas bu ko lal pas-pas boobu mën naa nekk aw sos boo xam nit ki da cey jaar ngir jàpp ne lu baax la al imam malik rahimahullah kon waxam ji mu wax ne ku sos ci lislaam ab sos jàpp ne lu baax la ne da ngaa jàpp ne muhammad ibn abdillah dafa sànq kóolute gi ko yàlla joxoon kóolute gi mu ko joxoon mooy tànn ko tànnat ko tànnati ko tànnati ko mu nekk al Mustafa di al Muxtaar mu raxasal ko boppam yamul rek ci tànn ko ba mu ko tànnee daf ko xot dafa xotti xolam raxas xol ba Jibril dafa xotti xolu yonte bi alayhi salaam raxas ko xotti bi am na ñaari yoon ca ba muy nekk xale di am lu tollook ay euh, ñeent wala juróom benni at nekk ca bani saadiya di fa nàmp wala boog ñu ko fay yar ak timit ba nga xamante ni bii ma ngay rañaan ñaari yoon yooyu yépp xotti nañ xolam raxas ko def ci xikma yàlla subhanahu wa taala taamu ko jox ko yónnentam googu yónnent googu nekk kóolute bu ko yàlla subhanahu wa wóolu yebal ko ci ci nit ñi kon na jàpp ne dafa sànq kóolute googu ko borom subhanahu wa taala joxoon muy risala boobu mission boobu ko yàlla subhanahu wa taala joxoon ci tayef wala ñàkk tey ci tayef wala ñàkk tey tayef mooy mu xam ne am na lu ci matul mu bàyyi ko ñàkk tey mooy xamu ko waaye daf koo munta matal am na lu mu ci bàyyi loo xam ne foog keneen mooy ñëw mottali kon ñaar yooyu yépp lu ci mën a am mooy matalul mission bi ko yàlla joxoon alimaam malik rahimahullah daal di sukkandiku ci loolu ci aaya bi yàlla wax ne al yawma akmaltu lakum diinakum bis ni ko tey matalaal naa la seen diine ci xew-xew boobu ñépp seede yàlla wàcce ci moom aaya boobu ndax bis boobu ca la yàlla yamale atte yépp yi nga xam ne wàcce na ko ci lislaam fekk na mu mat bu amaatee lu fi wàccaat ci lislaam lu néew la loo xam ni daanaka boo ko seetloo du am ay atte benn ñaareel bi ci des tamit mooy nekkul loo xam ne lu bari la te dañ ne an naadiru la xukma lahu parce que foofu xaalibu sharia fekkoon na mu mat fekkoon na mu am wal xukmu lil xaalib kon bu nee mat na mooy jamono jooju fekk lépp lu waroon ñëw mat na benn benn ndénkaane yu sew sewaan yi fi ñëwaat ci diggante bi terewu koo mat ci jamono jooju kon fekk nit ñi teew nga xam ne ci lañ mën a gën a seedee yàlla subhanahu wa taala seede yonente bi alayhi salaam seede loo leen seen kanamu borom ñu seedeel ko ne mat na alimam malik ne kon lu nekkul woon diine ca bis booba yàlla di wàcce aaye bi loolu munta nekkaat diine ci ginnaaw bi ak jubluwaay bu ci nit ki mën a am ak yéene bu ci nit ki mën a am munta nekk diine ak jubluwaay bu mu ci mën a am kon yéene bu rafet du doy rek principe bii nii nit ki daal di koy ñëw bënn ko daal di koy fëq teg ko fële di diineel loo xamante ni ca bis booba loolu amul woon nit mënatul a diineel def ci diine loo xamante ni bis boobu bokku ci woon ak yéene ak jubluwaay bu mu ci mën a am même bu ne damay traité benn problème bu am ci société même bu ne damay loolu yépp lu baax la dañ naan ko lu baax la góorgóorlu ci waaye loolu du la jox mukk sañ-sañ ci ngay yoonal ak di tëral ci lislaam benn gis-gis wala doxalin boo xamante ni yàlla subhanahu wa taala boole ko ci diineem ji yàlla ba muy matal diineem ji loolu nekkul woon ci diine te itam même bu fekkee nekku fi woon itam kenn mënu koo dugal ci règle générale yi nga xam ne ci l'islam mënees na cee dugal yenn jëf yi nga xam ne xëy na ginnaaw bi judduwaat na bi lu mel ne al masalihul mursal ak yu mel noonu ci loolu lañuy gis ku mel ne al imaamul Ghazali ci Ihya muy wax ci wër gi mu wër ci këri xam-xam yi ak ëtti xam-xam yi di seet dëgg nekk ku mel ne ku gëlëm kër gu ne ëtt bu ne mu daanu fa jàng la ñuy wax lépp ba jeexal ko mais la mu bëggoon du ko gis ci yow mu jàll jaar ci falsafa philosophie jaar ci ilmul kalam wër a wër a ba tàbbi ci ci mutasawifa yi nee na bi mu ñëwee ci ñoom jël seen traitement ci la soog a sentir ne léegi li mu doon wër am na ko ñu jox ko traitement bi rek nee da koo jël rek tàmbali di wér mu xam ne kon fii la mu ne fii la dëgg ji nekk mu jël ko bi mu waxee wax wax wax ba ku nekk mu wax la mu jëlee ci yow ak ñàkk gi mu ko ñàkk doy ak li mu jëlee ci mu tasaw yu fay ak doy gi mu ko doy ba wéyal loolu cheikh al islam ibn taymi rahimahullah ne dafa fàtte ak tariqatul muhammadiya da xamul moo tax tudd ko bi muy wax ñii la tudd ilmul kalaam falsafa daanu ci suufiya ana tariqatu muhammadiya bi mu yaroon saxaaba yi bàyyi leen ci mu ne loolu moo tax Ghazali tudd ko rahimahullah loolu rëcc na ko boobu mooy tariqa bi nit ki dëgg dëgg dëgg war a wër gis ko boobu mooy faj mar gi nit ki di wër mar gi nit ki di nekk ci xolu nit ki ci ci biiru nit ki muy wër ndox mu mu ko mu ngi ko fajee nee na bu ko xamoon kon du wax lii muy wax mu ne bu xamoon tariqatu ahlu sunna ahlul hadis yi nga xam ne dañuy yittewoo xam-xam ak jaamu yàlla ak yar bakkan kon du wax ne la mu doon wër gis na ko ci tariq ci ñi nga xamante ne ñooy mutasawwifa yi waaye comme xamul loolu nit ku nekk li nga xam rek nga mën a wax ci loolu la ñuy tàmbalee wax ci seen doxalin ak yi nga xamante ni dëgg-dëgg mooy seeni mbir yi nga xam ni mën nañu wax ni mooy règle générale yi ñu junjoon sànq ci définition yi comme mbir yu tàqaliko loo yoo xam ne mënoo lépp lu mu tasawu fa yi di wax wala ñu koy def nga toog di ko waxtaanee loolu kenn mënu ko ndax amul fu mu yem amul fu mu yem kon boo koy jàngat di ci wax fokk nga tënku rek ci yi nga xam ni mooy yu gën a yaatu yi nga xam ni mën nañu wax ne mooy dëgg-dëgg yi bokkale ñoom ñëpp daanaka wala suñ ci wute wute bi du sori ba pare mën nañu wax ne seen seen pas-pas ci lañ ko tabax daanaka moo leen gën a màndargal ak ci ñeneen ñu dul ñoom moo leen gën a wuteel ak ñeneen ñu dul ñoom loolu bi ci bi ci njëkk ci ma ci yi ma ci njëkk a gën amal solo mooy seen tariqa ci seen istidlal tariqatul istidlal ak seen tariqatu fahmil islam moo yoon bi ñuy doxee ñoom ci l'islam yoon bi ñuy déggee seen diine ak yoon bi ñuy tegtaloo ci l'islam ci luñ bëgg a saxal ci diine ne lii ci diine ji la bokk xam nga loolu lu am solo la ci nit ndax loolu daanaka mooy diine nit nit ki lim jàpp ne loolu lay mën a saxalee diineem rek fa lay jëlee diineem loolu mën nañu wax ne loolu mooy li gën a am solo ci lislaamam moo tax loola bu ci nit ki juumee yàqute bu bari lay jur ci diineem yàqute bu bëree bëree bëri bëri ndax borom moo xam ne dañuy wax ne hal yastaqimu dhillu wal udu awaju boo sampee bant bu dëng ker ga muy ker ga cay juddoo du mën a jub ndax bant bi moo dëng comme bant bi moo dëng mënoo fexe ba ker gi jub moo tax dangay ngay yittewoo li ñu tuddee al aslu muy cosaan bi nga xamante ni moo jiitu bu baaxee la ci tegu ca kawam soo ko mën a baax mais bu fekkee li nga jiital baaxul li ci kaw du baax moo tax maa buniya ala fasid fa huwa fasid maa qaama ala fasid fa huwa fasid kon aslu boobu aslu bu am solo la ci ñoom muy seen tariqatul istidlal yoon bi nga xam ci la ñuy jaaree ngir saxal diine ngir saxal dara ci diine ñoom daanaka amuñu bunt bi du tëju ndax li ma la waxoon sànq seen principe mooy loo xamul maandu ca mooy bul laaj mooy bul lijjanti rawatina bu fekkee ki nga xam ne moom nga ko seqal ab cheikh la cheikh lañ koy tuddee ñu jàpp ne ab wali la kenn waru koo laaj man qaala li cheikhihi lima lan yufliha abada ñoom dañuy wax ne képp ko wax sab sëriñ ne ko lu tax doo texe ba mukk te yonente bi alayhi salaam daf daan def saxaaba yi naan ko lu tax waaye ñoom lu tax amul ci ñoom bokkul ci seen diine dañ koo génne seen dictionnaire buntu boobu li ci jiitu ci li ñu xam mooy ne ad diin mabni ala al waqf mooy diine yàlla da koo tënk ci delloo ñu ci yonente bi alayhi salatu wasalam delloo ñu ci li yàlla wàcce ci moom yoonal ko ci moom laa tuqaddimu bayna yaday illahi wa rasuli waru ñoo jiitu yàlla ak yonentam dañoo war a topp yonente bi alayhi salatu wasalam yonente bi ci boppam daf ne in attabiu illa ma yuha ilay du ma topp lu dul lu dul li yàlla subhanahu wa taala wàcce ci man moom ci boppam du jiitu li ko yàlla jox ci ay santaane ne na ci jaar wa ma yantiqu an il hawa in huwa illa waxyun yuuxa lam doon wax lépp ci boromam subhanahu wa taala la ko doon jëlee fii ñu gisaat yonente bi alayhi salatu wasalam règle bi muy wax naan kullu bidaatin dalala wa kullu dalalatin fi nnaar lépp lu ñu sos ci diine ji sànkute la te sànkute moom safara la jëm kullu bidaatin dalala wa kullu dalalatin fi nnaar loolu règle la boo xam Cheikh Islam nee na bu doon am na lu ko tënk yonente bi du dund ba faatu te du ko leeral wala mu junj ko te gisuñu fu mu junjee wala mu waxee wala mu leerale lu tënk règle générale boobu nga xam ne saa bu mu sànni wax moom lay tijjee waxam ci kanamu saxaaba yi ndax nit bu waxee wax joo xam ni la nga ca mën a déggee dafa leer te leeralul feneen ne loola leere ci waxam nañ namm ko kon loola nga ne namm ko ci waxam sànq waxam la loolu règle boobu ku mel ne Ibn al moo koy joxe ci wàllu tawil mu ne nit buy wax wax ju leer nañ joo xam ne lañ ca déggee dafa leer nañ te waxaatul ginnaaw bi mu waxee wax jooju luy wane ni loolu leer ci waxam naññe du loolu la namm nga ne loola leer ci wax ja namm ko sànq waxam la loolu méthode boobu ñoom loolu la ñuy doxe léegi yonent bi alayhi salatu wasallam règle générale bii mu joxe ci bunt bi loolu mooy li jaadu li ñëpp war a teg seen tànk mooy ne kon dañu war a topp ci ginnaaw yàlla akub yonam tam fu ñu wax ne teg leen fii seen tànk ñu teg fa suñ tànk fu ñu ko santul duñ ko fa def bi ñu gisee yàlla subhanahu wa taala di wax ne am lahum shurakaa'u shara'u lahum min ad-diini ma lam ya'zan bihi illah borom xam-xam dañ ciy sukkandikoo ci ne nit ki lay yoonalal di la tëralal nga ko ci topp te jëlee ko ci yàlla li ngay def sa diggante moom shirk la bokkaale la loolu dina ñëw comme ci xadis xadisu adi ibn xaatim bi nga xamante ne dégg na yonente bi alayhi salatu wasalaam muy jàng ab aaya mu laaj ko ko mu tafsiral ko ko bidaa boobu nekk ñaari xaaj mooy loolu yonent bi alayhi salatu wax ci li ñuy sos ci l'islam nekk ñaari xaaj comme ni ko alimaamu Shaatibi leeralee loo xamante ni amul cosaan ci l'islam amul cëslaay ci l'islam nit ki da ko sos fent ko mu ñëw ci l'islam amul fu mu ko wér loolu bidaa xaqiqiya lañ koy tuddee ak beneen sos boo xam ne bidaa ida idaafiya la tudd mooy loo xam ne l'islam da koy tëral yoonal ko nga ñëw jële ko ci anam boobu ko l'islam tëralee yokku ca leneen wala nga yóbbu ko ci beneen anam boo xam ne kenn joxu ci sañ-sañ kenn joxu ci ndigal loolu tamit dafay dugg ci euh, dafay dugg ci bidaa loolu dinañ ci ñëw insha allahu taala ci benn règle bu am solo boo xam cheikh alislam mi ngi koy junju ci bunt boobu li njëkk ñoom ci seen doxalin ci almutasawif bu fekkee dangay ngay jàng ak tasawuf mën na ñoom ci seen buntu tëral ak yoonal ci lislaam ak diineel dara def dara muy lislaam seen sukkandikukaay bi ñuy sukkandiku nekkul alxuraan ak sunna rek dañ am yeneen balluwaay yoo xam ne jàpp nañ ni mën nañ caa sukkandiku jële ca loo xam ne diine la dafay bokk ci diine wala sax mu bokk ci li gën a baax ci diine te nekkul lu am cosaan boo ko dee wër ci alxuraan wala ci sunna loolu moom mooy seen déggin bi nga xam ne moo tax ma lay wax sànq ne la géeju ndaayaan la goo xam ne amul fu mu yem ci lu mel ne ilham wala gis ci ay nelaw ru'a wala ilham loo xam yàlla koy tàbbal ci xolu nit ki wala loo xamante ni yàlla koy baaxee ci mu xam ko jékki-jékki ki fees dell ak te xam bi gisuñu ko fu mu ko jàngee nit koo xamante ni yàlla subhanahu wa daf koy wan ay mbir mu gis ko ñu ko tuddee kashfu genre mbir yooyu ba ci sax seen awliya yi nga xam ne dañuy dajeek yonent bi alayhi salatu wasalam moo xam ci nelaw wala yaqazatan muy jàkkaarloog moom nii bëccëg ndara kam mu lay gis nga koy gis ñëw indil la ay mbir jox la ne la defal lii ak lii loolu yépp bu ci nekk ci ñoom bunt bu yaatu la boo xam ne dañ ciy jëlee ay mbir yoo xam ne dañ koy yoonal ci diine di ko def di ko jaamoo yàlla mu nekk sax ci jaamu yàlla yi gën a màgg te saxul ci alquran saxul ci sunna soxlaw loolu di lijjanti ban aaya moo ko wax wala ban xadis moo ko wax ndax balluwaay yi bari na lu cheikh bi di yëg ci xolam la lu mu yëg ci biiram la xam ne dañ ko koo baaxee dañ ko koo jox mu sant la ko nga def ko nga war cee góorgóorlu ngir gaaw a àgg ngir gaaw am aljanna ba loolu bu la fekkoon sax ngay def leneen lu sax ci alxuraan ak sunna bàyyil loola te nga jël lii ndax loolu moo waral nga gis saa bu nit ki defee lenn ca yooya bàyyi loo xam ne sunna su sax la ndax bu jàpp ne yooyu bu ñëwee dañ koy boole ak li sax di ko def mais dañuy bàyyi li sax jël loolu yem ci léegi seen diine yépp day mujj nekk ne foofu lañ koy jële soxlaawuñ daan dara daanaka ci alquran wala dara ci sunna ci yi nga xam dañ koy def ci seen diine lu dul lu néew moo tax ñenn si ñoom daan wax ahlul xadis naan leen yéen da ngeen sonn ndax yéen seen xam-xam ci ay nit yu dee rek ngeen koy jëlee te ñun ñu dund ñoo ñuy jox suñu diine ñun duñ jëlee suñu xam-xam ci ahlul xadis dañ fi nekk naan ah, buxaari muslim na fekk faatu nañ bu yàgg nee nañ bàyyi leen ñu faatu ñi ngeen di nettali ci ñoom xam-xam ñun ñu dund ñoo ñuy jox xam-xam imma yàlla yàlla moo ñu jox directement wala yonente bi alayhi salatu wasallam ñëw joxal ñu boppam duñ fi toog ay nit di dox ci digganteeg suñ digganteek moom di ñu jox loo xamante ne dañ koy nettali di ko jële ci ñu faatu innakum tanquluuna ilmakum mayitan an mayit wa nahnu yatina ilmina ilmuna an alxayi alladi la yamut ki dul faatu bu mukk moo ñu jox ñu xam-xam directement moo tax ak talmasaani di kenn ci ndongo yi ibn arabi yi daf daan wax naan sabata indana bi tariqi al kashfi ma yunaqidu sarih al aql daf ñuy dafay wax ne ñun am na lu sax ci ñun loo xamante ni ci lu la yàlla di wan la nga gis ko boo ko waxee xel da koy weddi xel mënu koo nangu te lu sax la loo xamante ni dañ la koy wan nga gis ko jël ko diine woo ko te xel da koy rejeté loolu léegi ban diine la moom ibnul jawzi jële ci Qushayri muy wax ne xujaju suufiyatu azharu min xujaji kulli ahad al Qushayri nee na seeni lay ñoom suufiya yi moo gën a dëgër layu kenn ku mën a doon ndax ñiy dàggasante ak di saxal ay doxalin ci lislaam yépp ñaari madarasa la madarasatu naq la ak madarasatu ahlil la ñi fi nekk di sukkandiku ci xel lu mel ne mu'tazila yeeg ñi jeexitaloo ci ñoom ak ñi fi nekk di sukkandiku ci wàllu tuxal muy madarasatu ahlil xadis te wax ne ahlu xadis ñooy madrasu ahli naql naql naql faqat wérul jamau bayna na as saxiix wal aql as sarix wala boog an naql as sarix wal la as saxiix ñoom dañoo boolee diggante toxal boo xam ne bu wér la ak xel moo xam ne xel mu mucc ayib la ndax xel mi moo wommatu ci loolu ñu toxal ba tax ñu mën koo dégg jafe ko kon ñoom nee na la ñu xel moo tax Cheikh al Islam ne ñi nga xam ne dañuy jàpp ne dàggsante yi ñuy dàggsante ci wàllu xel yaakaar ne ci loolu lañ mën a jaare ba ba saxal amuk yàlla saxal firnde yi yonent bi alayhi salatu wasallam ci ne yonental ak yu noonu di sukkandiku ci xel dañoo xamul bépp waxtaan bépp wax ak bépp firnde boo xam sukkandiku nañ ko ci seeni xel falsafa ko ba tëral ko dinga fekk ci alxuraan bu ko gën a leer gën koo dëgër gën koo mucc ayib ndax ñoom seeni firnde yooyu ñu sukkandiku seen xel même buñ jàppee ci kaw ni ne dëgër na boo duggee ci biir di nga ne du mucc ayib day am ay problème yu ciy am day am ay problème yu ciy am moo tax kon wammatul seen xel yooyu ci alxuraan ak sunna sukkandiku ci mu nekk ab leer bu koy leeral ñu mën a gis dëgg moo gën ci ñoom ñu yem ci seeni xel yaakaar ni xel yi moo war a wëlbatiku di leeral alxuraan ak kon mu daal di wax ne ñaari yoon yooyu ñoom ñoo am mu ne li anna naas imma asxaabu naql wa asar mu ne wa amma arbaabu aql wa fikr wa imma arbaabu aql wa fikr mu ne wa shuyuxu hadihi taifa irtaqaw an hadihi aljumla walladi linnaasi xayb fa lahum zuhur fa hum hum ahlul wisaal wannaasu ahlul istidlaal nee na nit ñi immaa ñu nekk ñaari yoon yooyu ñi nga xam ne ñoom ñooy lijjante wàllu tuxal di sukkandiku ak yooyu ak ñi nga xam ne wàllum xel la ñuy jëfandikoo mu ne nag ñi nga xamante ne bi ñoom ñooy njiiti mbir mii di ab tasawuf nee na ñoom dépassé nañ loolu dépassé nañ mbir yooya nee na ñoom li nga xamante ni bu moo nëbbatu ba nit ñi mënuñu koo gis di ko wër ci seeni xel wala ñu koy wër ci li ñuy tuxal nee na ñoom yàlla def leen ko jox mu ne dàng ci seen kanam ñu koy gis kon ñoom soxlaatuñu xel mi soxlaatuñu tuxal bi ñu leen di tuxalal ndax li ñu leen di tuxalal yàlla tijjal na ne ko mel na benn écran bu tegu seen kanam ñu jàkkaarloo ak moom li nit ki di soxla di lijjanti ci xel mi gis nañ ko ñu ngi jàkkaarloo ak moom ñeneen ñi dañ koo gisul moo tax ñu koy wër te ñoom ñu jàkkaarloo ak moom moo tax nee na kon ñoom dañoo nekk ahlu wisaal wa naas ahlul istidlal nit ñi dañ fi nekk di tegtalu mais ñoom àgg nañ waaw nit ñaa fi nekk di tegtalu mais ñoom àgg nañ bu yàgg ibnul jawzi ne man lahu adna fahm yacrifu anna hada alkalaama taxlit fa in man xaraja an alnaqli walaqli fa laysa bi macdudin fi nnaas ibnul jawzi nee na ku am xel lu xel mi gàtt gàtt gàtt boo déggee wax ci li nga xam ne ay waxi njaxas rek la nee na nit ki génn ci xel génn ci tuxal nee na ko kenn dootu ko konte ci nit ñi bokkatul ci nit ñi génn na boo demee ba sa diine tabaxaloo tabaxatoo loo ko ci lu ñu lay tuxale di la ko jëlee ci mishkaatu nubuwa muy balluwaay bi fi yonantu bi bàyyi muy miiraas bi mu fi bàyyi ne al al ulama warasatul anbiya tasmaun wa yusma minkum wa yusma mimman yasma minkum di ngeen dégg bu ngeen déggee ci man am ñu déggee ci yéen ñooñu am ñu déggee ci ñoom balligu anni walaw aaya xaddisu an bani israila wala xaraj wa man kadaba alayya mutaamidan falyatabawa maqaadahu min annaar nadara allahu imraan samica maqaalati fa xafidaha thumma addaaha kama samicaha yu mel noonu yonent bi alayhi salatu wasallam doon wax lan mooy njariñam léegi nga dagg loolu neenal ko ne soxlawloo ko ndax am nga yeneen yoon yooy jaar ngir àgg gis dëgg-dëgg mbir mi xel mi mucc ay nit ki di ko jëfandikoo nga neenal ko ne aajawuloo ko aajawuloo li jënt lu dëppoo xel ak lu dëppoowul ak xel ibnu ibnu jawzi nee na kooku bokkatul ci nit ñi génne nañ ko ci nit ñi mu ne walaysa ahadun min alxalq illa wa huwa mustadil mu ne amul kenn ci nit ñi lu dul ne di nga sukkandiku nit ngir nga gis dëgg da ngay sukkandiku ngir àgg ci yàlla sax bi mu ñuy wan dëgg ay tegtal la ñu jox ngir ñu tegtalu ci mën a gis dëgg yàlla subhanahu wa taala mënoon na tàbbal ci xolu ñépp ñu xam dëgg sax wala la kenn bañ fay nekk di soxlaati lu lay wan dëgg waaye yàlla mi wàccee alquranam ci ay yonentam jox leen ay firnde ak ay dàggasante yoo xam dañ koy indi wala yatuunaka bi masalin illa bi bil xaqi wa ahsanu tafsira ñu indi ay mbir ay firnde yoo xamante ne dañ koy jox nit ñi ngir wan leen ci yoonu dëgg loolu mooy wane ne kon nit ñi ngir gis dëgg boobu dañoo soxla istidlal tegtal ku neenal tegtal boobu nag kon yow leneen nga bëgg a wax loo xam ni bokkul ak dëgg kon loolu moom mooy benn mbir boo xam ne njëkk na ci seeni mbir mooy du rek seen masdar yi ñuy jële seen diine alquran ak sunna am nañ yeneen yoo xam ne sax ñoo ëpp priorité ndax ñoom jàpp nañu alquran ak sunna li ciy feeñ du loolu la ci yàlla namm leneen la ci namm lu dul loolu ba tax na kon bu yooyu ñëwee nekk lu direct lu amul intermédiaire dañu war a bàyyi lii jëllale ndax lii moo gën a leer moo tax dañuy jàpp ne alquran ñaareel bi mooy alquran dañ jàpp ne xam-xam bi ci nekk xam-xamu zahir la xam-xamu saayir la ci kaw liñ ciy gis xam-xamu saayir la boo xam ni am na baatin bu nekk ca gannaaw boo xam ni moom lañ ci namm xaqiqatan te nit ki foog mu xam ko loolu dina ci ñëw ci seeni jeexital ñoom ak loo xam ne am nañ ko ci jeexital ci jullit yi mooy tere gi ñuy tere nit ki di lijjanti alquran lan lay wax ndax dañuy wax ne bàyyi leen waxu yàlla bi ngeen di tafsir di ko tekki ndax li muy wax mënoo leen koo xam am na leneen lu nekk ci ginnaaw lu ci yàlla xam namm loo xamante ni waxu ko nit ñi nit ki moo ko war a góorgóorlu ba xam ko kon ñi ko xam ay benn benn nit lañ ci ñoom lañu war a dem jëli ji ko waaye wareesul nekk fi di ko di ko ndax boo ko defee mën na laa tàbbal sax ci kéefér loolu nga xam ne ñoom dañ koy wax ci ne alquran yi ak hadith yi ñuy wax nii di ko jàng ci loolu la ñuy jëlee njub nga gis ab suuf yi mën laa wax ne la yéen seen saxiixul buxaari ak muslim yi ngeen di jàng moo leen sànq muy waxu yonente bi alayhi salatu wasalam bi ñu toxal nekk li gën a wér ci ay waxam ñu bind ko ci ay téere muy njub ku jóge ci borom bi subhanahu wa taala nit di ko jàng nga ne ko lii moo la sànq li tax ab suuf yi mën a wax loolu mooy dafa gëmul ne lii li ñu ciy déggee nii mooy njub gi ci ne ay junj la rek yu ñu ciy junj nii ci kaw nekk lu mel ne ay ay euh, cax yoo xam ne dañ la koy cax am lu mu làmb ca gannaaw loo xam loolu lañ ca nam yàlla ko bu yonam tam waxuñu ko loolu nekk pas-pas bu doy waar box ñu ngi ko jëlee ci albatiniya muy batiniyoon yi nga xam ne ci rafida yi lañ jógee seen tàmbali tàmbalewoo woo ci al ismailiya ñi nga xam ne jàpp nañ ne seen waajooj ji muhammad ibn ismail bi mu ñëwee dafa nasax dafa nasaxal shariatu muhammad ibn abdillah ñu am beneen sharia boo xam ñoom moom la ñuy topp di shariatu muhammad ibn ismail bi nga xam ne moo nasaxal shariatu muhammad ibn abdillah baatini yoon yooyu nga xam ne ci rafida yi lañ jógee xaqiqatan mutasawifa yi ñu jeexitalu ci ñoom lañ ci anam bu yaatoo yaatu baatini yoon yooyu tamit li ëpp ci seen i wax ci philosophie lañ ko jële ndax philosophie bi ñu ñuy xool li yonent yi indi ñoom dañu ne lii concerné wu leen ñoom ñi mu concerné mooy ñi nga xam ne seen xel munta amul niveau ak capacité bu ko may mu lijjanti ba xamal boppam dëgg-dëgg li am réalité bi am ci àdduna bi ak li ñu fiy dund ak li nekk ci ginnaaw ñi ko munta xam ñoom la yonent yi ñëwal léegi li leen yonent yi ñëwalee mooy yonent yi dañ leen indil ay jaamu yàlla safara aljanna defal lu baax bul def lu baax loolu yépp parce que xam nañ ni bu ñu ko defulee nit ñi duñu mën a nekk ci njub duñu mën a nekk ci ci ci jàmm duñu mën a tënku ci dara léegi pour tënk leen moo tax yonent yi indil leen gis-gis yooyu ne leen def leen lii def leen lii gëmloon ne am na aljana bu am am na safar bu yooyu existé wul ay xuraafaat la wul nulle part amul dara ay aljana safara lan mooy aljana safara loolu amul yonent yi ñoo ñëw gëmloo ko nit ñi pour tënk leen pour yar leen loolu lañ ci jublu ñenn si ñoom na yonent yi bi ñuy wax loolu xam nañ ni li ñuy wax du dëgg ay sos la waaye sos la ngir am benn intérêt ngir am benn njariñ ndax alxaayatu barirul wasila comme am na njariñ bu ci am di intérêt général wax bi ñu wax noonu même bu dëppul dëgg dara nekku ci parce que intérêt bi moo ëpp yàqute bi nga xam ne amee na ca nañ ne ñi loolu rek moo mën a tax seen i mbir yëwan ñeneen ñi si ñoom ne ñoom seen bopp bi ñu wax dañ jàpp ne la xamuñ ne li ñuy wax ay xuraafaat la ay détails la mais dañ jaakaar ne li ñuy wax ni dëgg la ñook nit ñi ñu nekk ci di ci sonn te xamuñ ne li ñu nekk ni dëgg-dëgg nekkul lu am ñoo lañ tuddee ahlu tajhil ñi njëkk ñi ñoom ñooy ahlu ak tadlil dañ yaakaar ne dañ jàpp na yonent dañ ñëw yu dalliluuna naas dañuy nax nit ñi di leen jox ay taxyilaat mais li ñuy wax du dëgg kon yu xayiluuna naas ñi ci des di ahlu ak tadlil ne yonent yi ci boppam dañ nekkoon ci dalal li ñu nekkoon ñoom seen bopp xamuñ ne njuumte la am beneen firqa bu ñëwaat ci ginnaaw di ahlu tawil mooy ñoo xamante ne dañ ne yonent yi sax xëy na li ñuy wax dëgg la aljanaak safaraat yooyu yëpp mën na nekk ne lu am la dañ leen a jox ay mbir ñu indi ko baaxe ko nit ñi waaye li ñuy wax nit ñi di leen ko jàngal di leen ko jox dafa nekk ay code yoo xam ne dañ koo war a décoder ay mbir la yoo xam dafa am ay mbir yu muy junj yoo xam mi ngi ca gannaaw nit mënu koo xam nii rek dafa am ay yoon yu muy jaar pour xam ko ñooñu ñu leen tuddee ahlu tawil mooy jàpp ne yonent yi alayhimu salaam liñ jàngale ci ay alquran ay hadith ak yooyu seen i wax ay mbir la yoo xam ne lenn lu ci nekk ci aaya yeeg baat yeeg yooyu dafa am ay mbir yu muy jëmmal waaye du càggante ni jëmmi kàddu yi jëmmi baat yi li muy wax ci kaw nga ko ciy déggee ba ñuy wax ak nit ñi loolu lañ ci nam léegi ñoom maanaa boobu kon dañ koy daal di dàq te ko fële am yeneen sens yoo xam ne moom lañ koy jox yoo xam ne ay code la yoo xam ne nit ki pour mu àgg ci pour mën koo décoder foog mu jaar ci ay tàggat yu ñu koy tàggat ak ay étapes yu muy jaar dem ba àgg ci pour mën koo xam doxalin yooyu ak gis-gis yooyu nga xamante ne bi ñoom am nañ ko tax na ñu sànq neenal jubluwaay bi yàlla amoon ci waxam akub yon yonentam alayhim salaatu wassalaam ci jàpp ne kon nit ki mënta jot dégg-dégg alquran ak sunna na ko fi bàyyi te dem toppi ji ab cheikh boo xam ne day jokk boppam ci kooka kooku xam na côté yi mën na ko ko décoder muy jëlee ci kooku directement moo tax kon ñoom gisuñu yow ngay góor góorgóorlu def effort ngir jàng ñu jàngal la nga xam li yàlla wax akub yonentam loolu du seen méthode seen méthode mooy ut intermédiaire boo xam ne moom mën na xam loolu yow nga jaare ci moom léegi lu la joxati nga jël ko léegi kon neenal nañ alquran ak sunna foofu kon génn na complètement comme am nañ yeneen masdar yoo xam ne ci la ñuy jëlee loolu waxoon nañ ko ci point bu njëkk bi deuxième point bi mooy masdar bi fi nekk di alquran ak sunna gis nañ ni jàll àgg ci du caaxaan dafa nekk lu jafe loo xamante ni li ciy feeñ du loolu lañ ca namme kon bàyyi leen ko ngeen ñëw ci ñi nga xamante ne bi ñoom ñoo ko mën a décoder ñu jox leen dëgg-dëgg jubluwaay bi nga xam ne moom lañ ci am loolu moo tax ñoom ñu daal di tàqale kon diine def ko sharia ak xaqiqa léeg-léeg ñuy wax ne sharia mooy aslu bi mooy fondement bi xaqiqa bi mooy benn bànqaas ci bànqaas yi nga xam ne sharia bu ñu ko waxee mooy li feeñ mooy li ñu tuddee ilmu zahir mooy julli yi woor yi jaamu yàlla yi nekk ci kaw te ñépp xam ko ak daan yeeg yooyu waaye xaqiqa bi beneen mbir la boo xamante ni dafa nekk lu nëbbatu nekk sir boo xamante ni du caagante ni ñépp ñoom ñoo ci mën a àgg waaye nag mooy jubluwaay bi nga xam ne saa bu ko nit ki découvrir bu ko xamee mooy yoon bi gaaw ngir mën koo àggal ngir mën koo àggal bunt boobu nga xam ne tijji nañ ko muy al alxaqiqa ci l'islam ci bunt yi gën a yiñ gën a yàqee ci seen gis-gis ñoom ci l'islam bokk na ci ndax lu waay indeeti boo ko waxee mun ne la lii xaqiqa la léegi dafay tijji bunt boo xam ne lu neex waay mu indi ko ci l'islam lu neex waay mu def ko ci l'islam te doo ko doo ko mënal dara ndax da nga koy wax mu delloo ko ci benn pàcc boobu nga xam ne ci lislaam leerul dafa lëndëm dafa laqatu ay benn benn nit ñoom ñoo ci mën a àgg xam ko noonu yàlla bi jóg jàng ay philosophie ak jàng ay mbiram yoo xam ne kenn xamul lan la ñëw dugg ci lislaam ngir bëgg koo yàq yàq pas-pasu jullit ñi ñëw di wax wax yoo xam ne kenn xamul wax yi ci alquran kenn xamu ko ci sunna te ñun mooy suñuy nituwaay yi ñu am yi ñu yàlla jox ñu mën cee natt bépp wax boo xam nit indil nañu ko ndax dañ koy jël wala dañ koy delloo moom mu am sañ-sañ mën a indi wax joo xam ni dafay waroo ak loolu fa waroo yem di màbb loolu di ko neenal te boo ko waxee mu ne la dafa dellu ci xaqiqa boobu nga xam ne nit ñi ñëw mënuñ koo jot kon léegi nit ñi lu seen mbir ma loolu mooy tijji bunt yoo xamante ni lu lu yàq lu bari lay yàq ci lislaam te li may wax nii jarul joxe exemple damay wax di bàyyi parce que ñi may waxal ñu ngi koy gis suba ak ngoon mooy da dafa nekk doxalin boo xam ne amul ay repère amul ci lenn looy dellu amul ay balance yooyu natt wala ay nattuwaay yooyu natt ay mbir amul ndax nattuwaay yi ñu waroon mën di natte yépp ñoom dañoo ñëw neenal ko indi mbir yoo xam ne kenn mënu cee sukkandiku di natt kenn mënu cee sukkandiku di natt beneen bi ci des mooy bi nga xamante ne ñoom gis nañ ne nit ki bu demee ba àgg ci benn marxala ci seen doxalin yooyu mooy li ñu tuddee ar riyaada muy seen entraînement yi ñu lay entraîné di la ko traité boo demee ba àgg fenn fi dootoo soxlaal yonent bi alayhi salatu salaam ndax ñenn ñi nga xamante ni saxal nañ ne yonent bi alayhi salatu wasalaam li mu indi dëgg la lu ñu war a sukkandiku la njub la dañoo jàpp ne loolu ci tàmbali bi la pour début bi la pour débuter mais boo débuté ba tegu ci yoon wi dëgg dëgg dëgg dëgg dëgg ba àgg ci yenn étape yi soxlaatu loolu li mu indi ndax danga koy dépassé da ngay léegi mën bàyyi loolu dépassé loolu génn ko dem di doxalee neneen ak di jëf yeneen mbir yoo xam ne du bokk ak shariatu muhammad kon sharia bi benn jumtuwaay la bu jumtuwaay la rek boo xam nit ki ci benn étape la koy soxla bu dépassé étape boobu dootu ko soxlaati ci loolu lañ jàppee ñoom ne seen awliya yi nga xam ne nit ki bu àggee ci marxalatul wilaya nekk wali soxlaatul tëkk tënku ci liñ tuddee shariatu muhammad mën na koo génn di def mbir yoo xam ne ci sharia mooy yàlla la li ñu ay topp yàlla ci sharia mu koy neenal di ko bàyyi ndax loolu tënkatu ko léegi mel na li yàlla wax ne wa'budu rabbaka hatta yatiyaka al-yaqin na nga jaamu sa borom kon jaamu gi dafa am benn limite dafa am benn limite mooy foo xam bu fa yemee jaamu gi wàcc na la ndax yàlla daf ne hatta hatta lil gaaya la lil gaaya mooy dafa am benn limite bu la indil ci sa jaamu gi mu la digal mooy hatta yatiyaka al-yaqin mooy boo amee yaqin mooy marxalatu al-irfan mooy boo demee ba nekk aarif boo demee ba nekk aarif mooy yaqin boobu dikkal la léegi loolu ibada wàcc na la ci beneen étape ngay dugg ñenn ñi ci ñoom mooy état bu al ittihaad mooy yàlla day daal di ñëw nekk ak yow taqoo ak yow ni ngeen nekk benn yàq yàlla boo jaamoo sa bopp ngay jaamu mënatuloo jaamu kenaan loolu ci li ñuy gën a sukkandiku ñoom bokk na ci xadisu wala yazaalu yataqarabu ilayya bi nawafil xata uhibba fa ida ahbabtuhu kuntu samaahu alladi yasmau bi wa basarahu alladi yubsiru bihi ak ba xadis ba jeex xadis nañ ci taxaw tuuti ci kanam bu ñuy wax ci al wilaya insha allahu taala kon buy jaamu boo boobaa boromam boppam lay jaamu beneen bi ci des tamit ci bunt boobu mooy yi nga xamante ne bi moom la ñuy sukkandiku ñoom mooy li ñu junjoon sànq ci ne dañ jàpp ne yonent bi alayhi salatu salaam da leen di dikkal di leen jox diine joo xam ni bàyyiwu ko fi woon jamono bi ko yàlla yebale loolu nekkaat ndànd fay fay goo xam ne amul fu mu yem ñenn ci ñoom woote woone yonent bi gis na leen jox leen ay awraad ay wérdu yoo xam ni wala mu jox leen tariqa boo xamante ni moo leen ko jox loxoog loxo wala mu bindal leen xasida boo xam ne moo leen ko bindal joxo ko ko loxook loxo di ci wax ci ay yool ak ay ngëneel loo xam ni yonent bi sax waxul lu mel noonu ci alquran waxu ko ci sunna loolu ku am balluwaay ak delluwaay bu mel noonu ci diine daanaka mën ngaa neenal l'islam ndax bu fekkee Muhammad ibn Abdullah moo lay dikkal ngay dem di jële ci moom directement xadis bu wérul sax dangay dem ci moom laaj ko ndax wér na mu ne la wér na ak wérul loolu boobaa wax ji jeex na kon di nga mën a xam koo xamante ni méthode boobu la am te lu bari tey ci li ñuy dund fii ci senegal ci wàllu tasawuf ci tariqa bi mu gën a jeexitaloo ci ko tëral muy at ya nee na Muhammad ibn Abdullah moo ko dikkal yaqazatan laa mën a mën jox ko tariqa bi jàngal ko ko jox ko principe yeeg lépp jàngal ko ko léegi koo xamante ni noonu lay yoonalee diineem noonu lay yoonalee lislaamam loolu loo ci mën idéologie bu mel noonu yaakaar naa loolu rek junj loolu rek doy na ci leeral nu mu nekkee lu doy waar te moo ne ñi nga xamante ne bi ñoom la yonente bi alayhi salatu wasalaam yar jàngal leen dañ ciy fekk Abu Bakar fekk ci Omar ñoom ñaar ñu mën a jàngee ci seen mbir ak seen nekkin luy wane ne seen yooyu ñuy wax yooyu yépp ñoom ay xuraafaat la li ci njëkk mooy ne yonente bi alayhi salatu wasalaam dikkalaatul kenn ci ñoom jox ko lenn ci diine ndax laata mu fiy jóge xamal na leen ne diine mat na bu ñëwee di ko mottali mooy weddi na li mu waxoon xamaloon ne saxaaba yi ne lépp lu baax lu ko yàlla joxoon jàngal na leen ko kon amul lu mu ñëw di ko dabuwaat mel ne lu ko rëccoon mu koy mottali kon jamono bi mu fi nekkee xamu ko woon ginnaaw bi lañ ko ko jox bu fekkee xamoon na ko mu nëbb ko joxu ko saxaaba yi joxu ko ay doomam joxu ko ñi fi nekkoon nga xam ne kuy mérité ci l'islam lu baax ñoo la ko gën a mérité kuy sonnal ngir islam ñoo la ko gën a sonnal kuy jege yonent bi alayhi salatu ñoo la ko gën a jege ku muy bëgg ñoom la gën a bëgg ci ñoo ci yow biñ ko laajee koo gën a bëgg ci nit ñi dafa wax Abu Bakar jigéen ñi Aïcha joxu leen baax yooyu joxu leen xéewal yooyu nekk ak ñoom di leen gëmloo ne jox na leen lépp lu mu leen xamal ba ñu jóge fi mu ñëw di jox keneen weneen yoonu aljana woo xam ne saxaaba yi buñ ko xamoon rey ci seen bopp kon loolu trahison la loolu ñi tuur seen deret ci si yoonu yàlla ngir moom ngir fekk ko ngir bañ benn poussière laal ay tànkam sànq seen alal ak seen njaboot ak lépp ci yoonu dimbali ko ngir diine mu toog seen kanam lu mu ba lu baax lu mu xam ne wax naa leen ko jàngal naa leen ko ba ñu jóge fi mu dem ba ay ñaata siècle mu ñëwaat gis benn waay di ko baaxee benn mbir boo xam ne moom waa ji àgg ci foo xamante ni bii dafay garantiral képp ku bokk ci yoonam ne yow moom sa yaram araamal na safara ku yonent bi di baaxee loo xam ne bokk ci rek sa yaram araamal na safara te garanti bu mel noonu joxu ko saxaaba yi loolu mooy ban ban ban ban tuuma boo xam dañ koy tuumaal Muhammad ibn Abdillah alayhi salatu wasalaam te boo waxee ñu ne la yàlla am na kàttan ci lépp yàlla am na kàttan ci lépp mooy kon lépp mën na am ndax du lu ci yàlla am kàttan rek def ko wàllu lislaam mbiru boo gisee ci tàmbali bi ñoom ñu neenal tegtal yi teel ñu cee sori mooy li yàlla wax ci uslubu firawna fastaxafa qawmahu fa ataauhu firawna pour mu mën a dem banaan xeetam maa urikum illa ma ara wa ma ahdikum illa sabila rachad gisaluma leen lu dul li ma gis muy vision simpliste nekk dictateur boo xam ne li ma gis rek laa ngeen gis fi may xool ngeen di xool laata firawna di ko mën a def daf leen def istixfaaf mooy daf leen doyadal daf leen doyadal ba ñu doyadi mu leen di manipuler nu mu ko neexee doyadal gi mooy nit ki yi mu war a sukkandiku ngir xam dëgg nga ñëw yépp dindi ko ci moom neenal yooyu ci moom yàqam xelam alxuraan ak sunna nga dox digganteem ak moom léegi kon kooku toog na léegi amatul arme amatul nitukaay amatul nattukaay léegi nag nga soog a mën a ñëw di def ci moom lu la neex lu la neex nga gëmloo ko kon étape la ñaari étape la ak taxliya summa taxliya da ngay ñëw li fi nekkoon ci nit ki yépp nga dindi ko ba dootul dese benn jumtuwaay nga soog a ñëw nag lu la neex nga def ko ci moom ci ay xuraafaat du am benn repère bu mu mën a tey sukkandiku ngir mën a xam li nga koy jox lu baax la du lu baax lu wér la wala du wér parce que amatul benn repère ñoom loolu mooy seen tactique loolu dina gën a feeñ ci kanam ci seeni relation seen diggante ak seen i sëriñ Aboubacar Omar li tax ma wax ko mooy yonentu bi alayhi salatu wasalam dafa am lu mu wax ci Omar yàlla dëgg yi mu def ci làmmiñu Omar ak ci xolam Omar daan wax ay mbir muy dëppoo ak li yàlla di wàcc ci alquran yàlla di ko ci dëggal lu bari li ñu tuddee muwafaqaatu Omar lil quran Omar ibn al-Khattab dem ba yonente bi alayhi salatu wasallam ne kaana fi man qablakum muhaddathun fa in yakun fi ummati fi ummati fa Omar wala fa Omar minhum am na ci lu ñu jiitu woon ci ay xeet ay nit ñoo xam ne yàlla da leen di baaxee ay mbir ñu koy xam loo xam day jékki-jékki tabbi ci xelu nit ki mu wax ko rek loolu am du xam sax da koy wax rek loolu am mu mel ne da koo gisoon yàlla moo leen koy baaxe mu ne loolu bu amee sama xeet Omar Omar la ci yenn riwaayat mu ne Omar ci la ñu ne kon Omar mooy imaamu al muhaddathin wal mulhamin ku ñuy taxdiis di la am lu ñu lay baaxe wala ñu la koy ilham nga koy gis yàlla di la ko baaxe Omar mooy sa imaam ci ummatu Muhammad Omar mooy ci seen njit te terewul Omar dafa womatu woon ci sunna yonte bi alayhi sunna même bi mu nekkee imaamul imaamul umma nekk amirul muminin sax dañ ko daan jubbanti ci ay aaya ak ay xadis mu ci sukkandiku ndax loolu moo nekkoon delluwaayam ndax loolu dafa tax Omar ne léegi kon bàyyi leen alxuraan ak sunna ji te ngeen ñëw ci man li may yëg ci sama xel ak sama xol ma leen koy wax ngeen koy jël di ko jëfe bu leen nattati bu leen xoolati ndax Omar loolu la wax te Cheikh al-Islam Taymiya ne eh, eh, rahimahullah nee na topp gi lu mu gën a mat nit ki di gën a sori di gën a kawe lu topp topp gi di gën a wàññeeku nit ki di gën a suufe ndax nee na Aboubacar loolu Omar am ci yëg-yëg yooyu Aboubacar amu ko woon te Aboubacar moo moo raw Omar ci l'islam ndax Aboubacar moo ko gënoon mat ak topp Aboubacar moo gënoon mat ci saxaaba yi ak topp daawul teg baat ci lu yonente bi alayhi salatu wasalam wax lu mu mës a wax loolu lay def même bi ñu fi jógee ute ñu doon ute daanaka boo ko xoolee bi yonente bi sallallahu di soog a faatu chaque fois Aboubacar moo leen di indil ab xadis ne leen yonente bi alayhi salatu nee woon na li ndax taqoo goo xam ne taqoo ko ak moom sulxul xudaybiya bi Omar di tëb di dal ci li yonente bi alayhi salatu salaam jëloon comme ay décision mënu koo nangu ndax dafa jàpp ne ak suufee da cay nekk ñeel ñoo xam ne duñu ay jullit te ñun ñoo war a féete kaw ci anam boobu la ko mun mënutoon a nangoo waaye du ci dingat digale yonente bi alayhi salatu salaam da ko wax Abubakar Abubakar ne kay loolu bu ko waxee nañ ko ci topp nañ xam ne njub la dëgg la tegu ci baat Abubakar musul teg baat muy contesté lu yonente bi alayhi salaam décidé dafa matoon ak topp mat toppam googu moo tax mu raw ku mën a doon Cheikh al tamit mutasawifa yi tagg gi ñu tagg seen bopp ci bëgg a mat ak bëgg a àgg yaakaar na ñu ngi koy amee ci muxaalafatu sabilu muhammad topp seen mbir yooyu di leen dikkal loolu mooy topp yoonu seytaan ak pexey seytaane ndax nit ki mënta gën a àgg gën a àgg gu raw matal ak toppam ci li muhammad indi lu mu ci gën a góor góor lu gën a làbbali rek gën a gaaw àgg ndax mooy suratul mustaqim abubakar loolu la rawee nit ñi omar ibn alxataab itam mu doon am am taxdis taxdis abubakar moo ko musa raw ci lislaam musta njëkkanteeg abubakar ci dara te ko ci radiallahu anhuma ñaareel bi ti mooy Omar la fekk deful lool sukkandikukaay bu mu daan sukkandiku di ko diine terewul a chaque fois bu daan def dara da ciy sukkandiku ci l'islam bi mu ñëwee di foon alxajarul aswad daf na ko xam naa ab xeer nga boo xam ne doo jariñ doo loro su ma gisuloon yonente bi alayhi salatu wasalaam di la foon kon du ma la loolu day firndeel kon moom dégg-dégg bi mu amoon ak yëg-yëg bi mu amoon ci diineem te ne ci l'islam bi yonente bi alayhi salatu wasalaam indi ci la war a teg tànkam ci la war a sukkandiku moo tax ci jamono bi mu nekkee xalifa mu mën di atte ay atte ñu ko ci muraajaa di ko ci eh, delluwaat eh, di ci waxtaan ak moom mu ciy dellu gannaaw mu ciy dellu gannaaw wa illaa bu doon loolu la rek kon nekkul ne dina jël benn décision ci l'islam ñu koy contesté wala ñu am lenn lu ñu ciy wax loolu kon bu fekkee nit ki xam na ko xam ñoom seen doxalin boobu ci wàllu tariqa boobu muy tariqatu istidlal boobu nga xam ni am na fu mu tàmbalee mais amul fu mu yem kon dina xam ne ku diine woo loolu ku am déggin boobu ci sa diine say mbir du am fu mu yem kenn mënu koo tënk kenn mënu koo saytu kenn mënu koo pekk mu des ci alquran ak sunna ci façon boo xam ne moo gën a tënku ñu xool seen taxawaay ci alquran alquran buñ ko jàngee buñ ko tekkee tekkin yu doy waar lañ koy tekki yoo xam ne dañuy neenal la nga xamante ni bi moo cay jubluwaay ba xool yeneen mbir yu sori yoo xamante ni sori na lañ ca wax ñu daal di koy yóbbu ci loolu mooy dañ koy tawil ay tawilaat yoo xam ni sori na danga xamante ni dëgg-dëgg moo ko taxoon wàcc ndax alquran ndax tawil buñ ko waxee ci tawil baatu tawil ñu ko waxee dafa jóge ci aala yaulu ida rajaa at tawil mooy at tafsir wal irja delloo mbir tawil mooy delloo mbir léegi la moo tax ñuy wax ta'wil ta'wil ci alquran li muy tekki ci alquran li ta'wil di tekki mooy xaqiqatu shay wala maaluhu mooy mbir buñ ko waxee te xamuloo dëgg-dëgg mbir mi lan la nga fexe ba xam lan lay tekki loolu lañ tuddee xaqiqatu shay walla mbir ma fa mujjee mbir ma fa mujjee mooy benn xabar bu la dikkal xamuloo lan mooy doon mujjantalam nga dem ba jamono mujjantalam ñëw nga ni li mooy tawilam hada tawil ruyaaya min qabl ak li mu wax ne hal yanzuruna illa ta'wila ñaari sens yooyu beneen bi ci des loolu mooy bu fekkee ci xabaar la loo xam lu ñu nettali mais bu dee ci lu ñu sant ta'wil bi mooy nga jëfe lu mel ne li yonent yàlla subhanahu wa taala wax yonente bi alayhi salaam da daan wax lu bëri ci ay sujootam ak ay rukuam naan subhanaka allahuma rabbana wa bihamdika allahuma axfir li yataawalu alquran yonente bi alayhi salatu wasallam daf daan wax ci sujootam ak ci rukoam lu bari di wax naan subhanaka allahuma rabbana wa bihamdika allahuma axfir lii di jëfele ko boromam sant yata awalul quran foofu tawil li muy tekki mooy imtisaalul amr mooy li ko yàlla sant ci ida jaa nasrullahi wal fath nda ko dok fa sabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba mu koy muy jëfe ndigal boobu kon tawil bu ñëwee ci loo xam ne ab ndigal la mooy jëfe ko mooy imtisaal kon ñetti sens yooyu du ko génn ci alquran mais tawil ñi mujjee ñëw dañ koo tekkee tafsir ñu bëri ci borom xam salaf dañuy wax tawil di ci namu tafsir ku mel al imam ibn jarir mais ñi waat ñëw ci madrasatul mu'tazila ñi nga xam ne ñooy wax ci wàllu ilmul kalam tamit topp leen ci loolu muy ahlu usulul fiqh ñoom dañuy tekkee tawil ci sarfu lafz an az-zahir al-mutabadir wal muhtamal ila ma'nan akhar li qarina ñoom dañuy jëfandikoo tawil ci benn baat ñu wax ko nga jële ko ci li mu waroon tekki yóbbu ko ci leneen loo xam ne waru ko woon tekki mais dafay am lu ko waral day am lu tax ci yow nga bàyyi li nga ko waroon tekkee jox ko beneen sens ñu ne kon awwalahu mais loolu dafa dem ba ñu xaabaabal ci ba yàq ci lu bare bare bare bare bare bare ci waxi yàlla subhanahu wa taala ak waxi yonente bi alayhi salatu ci jël ko bàyyi sens yi nga xamante ni moo ci leeree ñu waroon ko caa déggee yóbbu ko ci yeneen déggin yoo xam ne yu sori la léegi léeg sax yu yàqu lay doon kon ñoom lu bari ci seen tafsir bi ñuy tafsir Qur'an ci loolu lay dellu boo leen déggee léeg-léeg ci yi ñuy sukkandiku ci ay aaya ci ay pas-pas yoo xamante ni xëy na jiitu woon na sax ñu yoonal ko ci anam boobu lay doon beneen bi ci des ci bunt boobu ba léegi mooy li njëkk ci ñoom mooy dañuy saxal mbir soo ko jéem a layal ci alquran ak sunna loolu moo tax ci ñi mujjee ñëw ci mutasawifa yi nga xam ñooy dund ci jamono yu mujj yi nga xam ne léegi dàgg sant bi bari na seen diggante ak ñeneen ñoo xam ne bokkuñu ñoom gis-gis te ñooñu bu ñuy dàgg sante di wax wax ju leer joo xam ne ku ko dégg xam ko di tudd yàlla nee na yonent bi nee na ñoom tamit dañ jéem fexe fekk si leen foofu am ay ustaas yoo xam ni dañuy ñëw toog di wax ci niveau boobu te loolu nekkuloon seen seen seen ñoom parce que ñoom seen méthode mooy lii la cheikh bi wax bul lijjanti lu tax mu wax ko gëmal balaa ngay yàqu jëlal balaa ngay yàqu boo naan lu tax rek di yàqu ñoom loolu moo nekkoon seen méthode mais léegi dem nañ ba bëgg a jéem a seen wax yooyu ñu waxoon te taxawal taxawaluñ ko woon fenn lu dul ne di wa ko wax léegi nga jee koy jéem a expliquer xam nga day daal jafe léegi looy def mooy da ngay jéem a dem ci alquran loo gis mu nuru loola rek nga daal di ciy laxasu boo demee ci sunna loo seen muy ñuul rek nga laxasu ci moo xam wér na wérul sa yoon newu ci na ko junju rek nga tatafu ci daldi ne lii moom kenn mënul tax ma bàyyi ko loolu moo tax kon ngay gis ci kaw ñuy tudd ay aaya ay xadis ngir di saxal ay mbir mais boo ko toppee ba ci biir di nga xam ne mbir ma saxaloon nañ ko même bu ñu gisuloon aaya bi saxaloon nañ ko du ci aaya bi la ñu sukkandiku dañ koy dimbali dimbalikoo pour ki leen di diingat ñu mën koo wax ne am nañ preuve mais di ñoom loolu la ñuy sukkandiku ngir di saxal seeni mbir ndax du loolu mooy seeni référence bu doon loolu la kon lu bari ci liñ nekk tey ñoom duñ ci ne ndax amuñu luñ ko mën a firndeelee ci alquran wala ci sunna kon loolu nit nga bañ ci waru yow mi leen di gis ñuy toog di débattre di wax ci ay mbir naan dañ yàlla moo ne lii yonent bi moo ne lii nangam di ko jéem a discuter ci façon boobu ci niveau boobu rek yem ci niveau boobu loolu du seen méthode seen méthode mooy li ma la njëkkoon tuddal ci ne la alxuraan ak sunna jooju ay junj la yoo xam ne des ko fee war a bàyyi xool yi ña nga xam ne ñoom xam nañ junj yooyu la ne ca gannaaw luñ ñuy wax ñu jël ko te ñooñu fa ñuy jëlee ay yeneen bunt yu bari la yoo xamante ni du dellu ci alxuraan wala ci sunna benn bi ci des mooy alquran kon ñoom jàpp nañ ne dafa nekk loo xamante ni bi am mbóot la am moo xam ne da caa ne mu su koo xam boo koy jéem a xam dangay ngay yàqu bu fekkee àgguloo ca te la chaque ne alquran nit ki pour mu tafsir ko tafsir bi tax ñuy wax tafsir buy tafsir ñoom bi ñu tuddee saayir wala zahir mooy nit ki foog mu uti yow am xam-xam am niveau bi yàlla may ko niveau xam-xam boo xam ne may na ko bagage bu mu am ci wàllu usulu tafsir ak ak madarisul mufassirin ak euh, wàllu luxa ilmul bayaan ak yu mel noonu naxu maanaam utiyewu daal ba mën a am lu mu tafsiré alquran pour mën a xam waxu yàlla subhanahu wa taala lan lañ ci nam bokk na ci bagage yi mu gën a soxla muy xam sunna fahmu sunna fahmu bu bu mucc ayib xam ko xamin boo xam ne xamin bu yaatu la ndax lu gën a am solo ci lu ñuy tafsiré alquran mooy alquran ak sunna mooy nga jëfandikoo alquran ak sunna ngir tafsir kaddu yàlla bi ci topp mooy waxu saxaaba yi ak ñi saxaaba yi yar muy kalaamu salaf waaye ñoom mi cheikh yi ñoo ko yore diw ak diw ak diw ñoo yore mbóot ma kon nañ dem ci ñoom la ñu bind ak la ñu wax te bàyyi alquran léegi loolu lan la jur lim jur mooy dañoo indi ay xasaayit parce que daanaka koo ci gis mu nekk ab cheikh bu yor yoon rek bind na ay it muy ay way yoo xam ne dañ koy bind buñ ko bindee nee nañ loolu ca la def mbóot mi nekkoon ci alquran ak sunna te nit ñi waroon dem di ko uti ji kon bàyyi leen ko te ngeen ñëw fekk fekk ko fii wax ci loolu ngëneel yoo xam ni doo ko fekk ci téere yàlla bi doo ko fekk ci sunna yonte léegi bu bu ko defee nit ñi loolu ci la ñuy ne suba ak ngoon di ko jàng di ci ut yool di ci ut mbaax di ci ut ak làpp di ci ut njariñ bàyyi téere yàlla bi bàyyi sunna yonente bi alayhi salatu wasalaam moo tax mu tasaw yu fay foo leen fekk yittewoo bi ñu yittewoo seen xasaayit yi nga xam ne seen sëriñ yi ñoo ko bind mooy féete kaw yittewoo bi ñu yittewoo alxuraan alxuraan dañ koy jàng ngir barkeeloo ko loolu maa leen ko wax barke moo leen ci yóbbu même bu ñu ubbee ay daara di ko ca jàng jàngu barkeelu la mais nekkul jàng pour jàngal nit ki alxuraan ji mu xam ko xam li muy tekki tënku ci di ko yittewoo di ci dund ak ak sunna nekk ca wet ga ñu koy topp di ko dund ndax li lay gën a firndeel loolu mooy yittewoo gi ñu yittewoo alxuraan ci di ko mokkal ak di ko mokkalaateel sunna newul ca wet ga te nit mun a jàng alxuraan jàngub dégg ko te jëf jëfewul sunna buñ boole woon ci njàng ma njàngaleem sunna mu nekk ca wet ba kon bu boobaa di wax ne kon ñoom dañuy jàng alxuraan dégg ak jànguk xam ngir mën koo jëfe waaye jànguk barke lañ ci jàpp koo xam dafa war a jiitu ci li muy jàng ak itam li fi fekkoon ci ay doxalin yi nga xam ne ñu ngi ko jëlee ci maliki yuun yi te maliki yuun yi maliki ya ak suufi ya bokkul ndax fii li fi nekk mooy ci wàllu mazhab fiq ci maliki ya sukkandiku bu dee ci wàllu pas-pas ci buntu pas-pas sa digganteeg sa boroom ci wàllu alasmaa wa sifaat ay ashaira lañ mais ci wàllu yoon ay fa lañ boole ñetti mbir yoo xam ne yépp bu ci nekk ak moromam daal doy na waar lool léegi kon doxalin boobu kon ay manhaj la ci jàng boo xam ne dañ ko fee fekkoon naka jekk mu jóge ci almaghribul islami ñëw fi nekk ne am na téere yoo moom la ñuy jaar di ci jàng li ci njëkk mooy kiy jàng day jàngal quran bu ci jógee jàng yenn mutuun muxtasara yi di ci jaar étape par étape ba ni ba ni nga xamante ne bi noonu lay jëlee li muy jël ci seen i bind mais ala kulli xaal bind yooyu li nga xamante ni moom ngay fekk ñi nga xamante ne bi ñooy ndongo yi sóobu ci yoon tasawuf xaqiqatu tasawuf moo tax may wax waxuma ku ca jeexitaloo wala koo xamante ne dese nañ ko caayar li muy jox yitte ci mbir yooyu xasaayit yooyu ci bind yooyu nga xamante ni seen sëriñ yooyu bind nañ ko du ko jox alquran du ko jox alquran alquran ji mën na koo jàng ngir barkeelu waaye wax jooja lay gën a woo moom lay gën a jox jëmm moo tax koy waxal ci ñoom boo bëggee mu dégg li muy wax siteel ko waxu lu waayam wax mais bul fi nekk naan ko yonte bi alayhi salatu wasallam nee na nangam ak sàngam même bu fekkee sax ay nettali yu ñuy nettali nii muy siiw ay xisas yu ñuy nettali ci dëkk bi dañ koy gëm te yonente bi alayhi salatu wasallam boo delloo ci référence yi gën a dëgër ci gën a wér yi ñu dajale ay waxam muy Buxaari ak Muslim ñoom jàppuñu ne lu wér la du jóge ci yonente bi alayhi salatu wasallam dañ koy contesté jàppuñu lu wér jëlee ci yonente bi alayhi lu leen ca neexul àndul ak ñoom la ñu wax mën nañ koo rejeté ci façon boo xam ne bu terre à lay doon te lu ñu leen toxalal jële ko ci seen gaa yooyu ci ne ay nettali sax même bu ko bindul fenn ñu daal di koy jël loolu seen taxawaay la ci ne alquran dañ jàpp ne mu ne su ko dégg mu ne su koo xam ba tax na ñoom nu leen neex lañ koy tekkee ñaareel bi tamit mooy dox gi ñu dox ci diggante nit ñi ak alquran bi sawa bi seen euh, xasaayit yooyu bu dee sunna nag sunna mooy ñaareelu delluwaay bi ñu war a dellu ci lislaam yàlla subhanahu wa taala wàcce ko ci yonante bi alayhi salatu wasalaam def ko mu nekk ab delluwaay ak sukkandiku bu ñu war a sukkandiku yàlla itam ba mu ko defee mu nekk ab sukkandikukaay bu ñu war a sukkandiku digal nañu ñu jëfe ko digal nañu ñu topp ko wa ma ataakum rasulu fa xuduhu wa ma nahaakum anhu fantahu yàlla digal ñu jëfe ko digal ñu topp ko dafa wax ne moom moo koy sàmm inna nahnu nazzalna zikra wa inna lahu la xaafidun yàlla wax ne moo koy sàmm borom xam-xam yi wax ne zikr alquran ak sunna yëpp daf ciy dugu ndax sunna zikr la ndax wax yi la min munazzal min alsama wax yi la min allah ci li yonente bi alayhi salatu wasallam wax ne ala inni utitu alqurana wa mithlahu maahu kon sunna ni alquran nekkee zikr sunna itam noonu la nekkee zikr te gis nañ yàlla subhanahu wa taala di wax ne wadkurna maa yutla fi buyutikunna min ayatillahi wal xikma wadkurna maa yutla fi buyutikunna min ayatillahi mu teg ci ne wal xikma ayatullahi mooy quran al xikma mooy sunna yàlla ne nañ ko jàng ci seen kër ya jàng gi ñu koy jàng mooy di xam atte yi nga xamante ni moom la yonent bi alayhi salaam jàngale ci sunnaam kon bu yàlla ne moom mooy sàmm zikr dafay sàmm alquran sàmm sunna ñi wax ne zikr mooy alquran itam dañ ne waaye bu ko yàlla digleen diggée ne dina ko sàmm mooy dina sàmm sunna ndax alquran mu ne su koo xam xam lañ ca nam te xamuloo sunna yàlla ba muy diglee ne dina sàmm alquran waxul rek ne day sàmm araf yi day sàmm baat yi waaye day sàmm baat yi sàmm tamit contenu bi sens bi kon bu sàmmee baat yi sens ba réer loolu kon mooy sàmm ko kon loolu moo waral bu sàmmee alquran ngir sàmm sens bi mu sàmmaale sunna ndax bu sunna réeroon julli sax duñ ko mën a def julli yàlla subhanahu wa taala ci loolu mu tàggat ay góor yoo xamante ni ñëw jël seen dund yépp jeexal ko ci jàng sunna ak wattu ko ak sàmm ko ba lépp luñ ci mën sa yokk benn xaraf ñu génn ko leeral jël sunna daal di koy dajale bind ko ci jamono Omar ibn Abdul Aziz en tant que amir boo xam mooy amirul muminin moom moo jëlal boppam décret ne dafay dajale sunna yonte bi alayhi salatu ci jamono joo xam ne borom xam-xam yi ñi ngi fi jamono joo xam ne ñi jàngee ci saxaaba yi ñi ngi fi fees dell ci àdduna bi mu bind leen ne leen bind leen sunna ji ngeen jàngi jële ko ci saxaaba yi dajale leen ñu dajale ko bind ko ci ay téere ci loolu la xam-xamu sunna tàmbalee di màgg di ñor façon xam yu bëri di génn ñu koy tuddee usulu ilmi al hadis ilmu ilmu al hadis wala ilmu usul al hadis ñu koy tuddee noonu mu nekk ay xam-xam yu bari yoo xam ne bu ci nekk ay xam-xam yu leer la yu am ay base am ay règle yu ñuy jaar nit ki mën koo jàng xam ko xam ci yan yoon la borom xam-xam yi di jaar ngir di tànn ak di segg hadis yonente bi alayhi salatu wasalaam ñoom nag yaakaar nañ ne borom xam-xamu xadis yi dañuy lekk ba suur naan seen ndox mu sedd jaaxaan rek ne xadis bi wér na bi wérul moo tax soo yu fay loolu lañ foog moo tax joxuñu xiima joxuñu dayoo ilmul xadis ba ca borom xam-xamu xadis yi nekkee di ko yittewoo di ko jàng ak lijjanti ay ñoom Shu'ba ibn al-Hajjaj ay ñoom Abdurrahman ibn Mahdi Malik Zuhri Ali ibn al-Madini Bukhari Muslim ñooñu bañ ciy jeexal seen temps ñoom ña nga seen biir kër tëju ne fa di jàng seen i awraat seen i azkar yaakaar nañ ñi dañuy font ñële ñoom jël seen temps yépp jeexal ko am na si ñoom ñoo xam ne njaboot sax amuñu ko Buxaari amul sax soxna dundam yépp ci sunna yonte bi alayhi salatu wasallam la ko jeexal dundam yépp nelaw guddi sax daawu ko def ba yaan jàndoor ndax jàng sunna yonte bi alayhi salatu wasallam ñooñu yàlla tàggat leen ñu sàmm sunna yonte bi alayhi salatu wasallam loolu mooy dëgg-dëgg bëgg Muhammad sallallahu alayhi wasallam mais nekk ci say kër laqatu fa ne fa di def say azkar yoo xam kenn digalul la kenn santu la ko yaakaar ne yow yaay ki mat yaay kiy fóot sa xol bàyyi diine muy sànku dégg nga boo toogee sax ba mu ne ba mu yàgg nga ni ñii daal dëgg-dëgg xam-xam bi ñu topp nii rek xaaral daal di ne diw nettali na ma diw nettali na ko diw nettali na ko yonent bi alayhi salaam nee na ku jàng alxuraan am nangam ak sàngam xadis ba daal di tasaaroo ci nit ñi nit ñi di ko nettali ndakate yaa ko sos ci sa biir kër ba mos cee topp benn xadis di ko wër kenn nettali ko xadis ci fadailul quran saar bu ne mu wax lan la mooy ngëneelam ci alxuraan saar bu ne lii mooy ngëneelam ci alxuraan ba alxuraan yépp jeex Shuba na ko lii de li nga ma wax keroog ko nettali ci àdduna Shuba moom yooyu rek moo ko doyoon borom xam-xam la woon fóori la woon ci ci ci ci ci ci ci ci moo mësa dugg ci ci ci ci benn borom xam-xam mu fekk ko mu yor téereem di jàng dafa ne tëll waa ji sànni téere ba mu wadd ndax tiit noonu la ko gaa yi ragalee woon Shuba moomu moo defoon boppam koo xamante ni da doon jihaat moom ngir sàmm sunna yonent bi alayhi salatu wasalaam loolu moo doon dundam moom spécialité am la woon Shuba ibn al-Hajjaj Abu Bistam Shuba di wër dëkk par dëkk dëkk bu mu tukki tukki yu sori trajet yu gudd yoo xam day dem dëkk def at ay weeri weer ci yoon bi bu àggee dem ba ci kër kooko ñu ko waxoon ne ko yow xadis sàngam nga ni ko la ko nettali mu ne ko diw ci dëkk sàngam mu dellu ci dëkk boobu du sonn de di ko wër ba àgg ci benn dëkk bu ñu tuddee Abadan bu nekk ca Irak ca Basra fa fa ma waxoon ne fa la mbir ma sosoo nee na mu dugg benn kër fekk benn góor ma nga toog ay xale wër ko di jàng mu ñëw daal di ne xadisu nangam rek kooku daal di jàpp loxoom ne ko kaay dugal ci néeg bi am na góor gu fi ne nga laaj ko mu dugg fekk fa génn góoru mutasawif ne ko xadisu fadailul quran moom siñ bi dégg naa yow yaa ko nettali diw ku la ko nettali mu ne kenn nettaliwu ma ko damaa gis nit ñi ñu topp magazi ibnu ishaq ibnu ishaq mi fi ne di leen nettali ay histoire ak yonent bi defoon na fii demoon na xeexi ji fii defoon na li defoon na lii topp fiqu imam abi xanifa mu naan leen lii laab na lii laabul li ñu topp ko rek bàyyi alquran ma bëgg ñu delluwaat ci alquran ma sos ko kon dama koo def ngir fen jàppale yonente bi alayhi salatu wasallam waaye fenalu ma ko maanaam ñoom dañuy wax naan akdibu lahu wala akdibu alayhi yonente bi def ne man kadaba alayya mutaamidan falyatabawa maqadahu min annar ñoom ñuy wax ne nahnu nakdibu lahu wala nakdibu alayhi moom def ne ku fen sama kaw ñun fenuñ ci kawam dañ koy fenal mooy dañuy fen ngir jàppale ko déggin boobu lañ amoon kon ñoom ci sunna yonente bi alayhi salatu wasalaam ci seen doxalin ba léegi mutasawifa yi fay xadis bu leen neex nettali ñenn si ñoom jàpp nañ ne bu maanaa bi wéree jub nekk lu baax rek mën nga wax ne yonente bi alayhi salatu wasalaam moo ko wax ndax am na xadis bu ci ñëw boo xam ne xadis mawduu la al imam ibn al jawzi mi ngi koy leeral ci al mawduat kon foofu la ñuy taxaw buñ jullee ba noppi insha allahu taala ñu ñëw jéem àggale li ci des wallahu alam hmm? barakallahu barakallah naam bismillahi irrahmani irrahim alhamdulillah wasalaatu wasalaamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala kon ñu ngi doon wax ci seen taxawaay ci sunna ñu waxoon ne sunna ñaareelu delluwaay bi ñuy dellu ci lislaam ngir di yoonal yàlla subhanahu wa taala sàmm ko ci tàggat bi mu tàggat ay gaay ñu jeexal seen dund ci jàng sunna ak sàmm ko ñoom yittewoowuñ règle yi nga xam ne ci la borom xam-xam yi xadis yi di sukkandiku ngir di leeral li wér ak li wérul moo tax ibnul jawzi wax ne innama qallat ulumu haulaai fa takallamu bi araihim alfasida fa in asnadu fa ila xadisin daifin aw mawdu aw yakunu fahmuhum minhu radia ibnu mas ibnu ibnul jawzi nee na ñii seen xam-xam dafa néew moo tax ñuy waxe seen ay xalaat yoo xam ne yu yu yu yàqu la nee na bu ñu askanalee li ñu solo li nga xamante ni moom la ñuy jëfee mu ne fañ koy delloo ci xadis bu wérul lay doon wala xadis boobu dañ koo sos da nga leen di fekk ñu sukkandiku ñu bëri ci seen i pas-pas ci ay xadis yoo xam ne wérul wala ñu mu nekk xadis yoo xam ne dañ koo sos amul benn cëslaay ci sunna du sax lu ñu war a tudd wala di ko sukkandikoo ci la ñuy tabax seen diine wala mu am wala mu ne ñu am ci ay dégg-dégg yoo xam ne yu yàqu lay doon seen taxawaay ci sunna bokk na ci li mu ñu tëjewoon waxtaan bi mooy jàpp ne mën nañoo jël ay ay wax ay xadis di ko askanale yonente bi alayhi salatu wasalaam même bu fekkee tuxalewuñ ko jële ko ci moom buñ jàppee ne maanaa bi wér na wala jubluwaay bi baax na rek loolu baax lay doon <coughs> mu bokk ci li nga xam ne moo gën a waral ñoom ñu ñàkk yittewoo sunna lool mooy jàpp nañ ne am na yeneen yoon yu ñu mën a jaar di jële ci yonente bi alayhi salatu bu budul yoonu tuxal di jaare ci ay xadis ndax comme yonente bi alayhi salatu dafay ñëwaat ci àdduna di dajeeg seen awliyaa yi ñu jële ci moom directement kon jarul ñu sonn ci xadis ci téere yi nga xam ne bind nañ ko ci xadis yonente bi alayhi salatu wasalaam te xam nañ yonente bi alayhi salatu wasalaam du delsiwaat ci àdduna ñu koy gis ak bët yaqazatan loolu saxul wérul li wér boo wér mooy gis ko ci nelaw gis ko ci gént bu fekkee wér na ni ko ko gis moom la gis bu fekkee wér na ni ko gis moom la gis mooy mu xam ko ci jëmmam xam ko ni mu mel mu leer ko ni ki mu gis moom la bu boobaa fi'lan moom la gis loolu benn la ñaareel bi tamit mooy gis ko ci nelaw du du delluwaay bu ñuy jëlee diine joo xam ne dañ koy yoonal di ci sukkandiku ci diine lu nit di baaxee nit la ci loo xamante ni yàlla moo koy baaxee ab jaam ci jaamu yàllaam ak ci nekkam bi mu nekk fii ci àdduna di góorgóorlu ci lislaam loolu mën koo feeñu mu am lu mu ca jële ci lu koy gën a ñaax ci diineem wala lu mu koy baaxee lu jariñ jullit ñi lu mel ni masalan jullit ñi nekk ci njàqare am benn solution boo xamante ni yàlla subhanahu wa taala mën na ko jaare ci noonu mu gis ko jullit ñi def ko yàlla subhanahu wa defal leen ci ak ubbeeku lu mel ne ñu jaamaarloo seenuk noonu wala yu mel noonu waaye kanta def ko mu nekk delluwaay boo xam ne da koy gis ci ay nelaw mu lay jox ay diine di jox ay yoon di jox ay jaamu yàlla nga koy jël di ko yoonal ci diine nga xam ne foofu mooy delluwaay bi loolu doxalin boobu wérul ci lislaam te ñoom loolu seen bunt bu bu yaatu la boo xam ne lu bari ci li ñuy jëf foofu lañ koy delloo duñ dellu ci liñ toxal jële ko ci yonente bi alayhi salatu salaam mu wér di xadis waaye ci balluwaay boobu la dellu ngir ci sukkandiku ñu jàll ci buñ jógee ci tomb xëy na wax ju njëkk ji dañ cee xawoon guddal tuuti ñu gàttal tuuti mooy pas-pas bi ñu am ci yàlla subhanahu wa taala ak saxal bi ñuy saxal borom bi subhanahu wa taala ak amam ñoom dañuy saxal amuk yàlla loolu lu wér la waaye liñ ciy taxaw tuuti mooy saxalin bi ndax yàlla subhanahu wa moo jiitu lépp lu am moom mooy ki sàkk mbindeef yi lépp lu am rek yàlla subhanahu wa moo la sàkk nekkoon ne moom mooy jëmmi mbindeef yi waaye ak mbindam lañ koo xam ne moo ko leen sàkk ci mbindam la ñu amee mooy kon alxaaliq li leneen li ci des di mbindeef yi di almaxluuq lim leen amalee mooy alxalq mooy mbindam di ne moo leen bind moo leen amal bi leen amalee itam sàkk àdduna bi ak mbindeef yi ci nekk xamal nañu ne moo féete kaw arsh arsh bi nga xam ne moom moo féete kaw lépp luy mbindeef rek arsh moo la féete kaw daf leen ndar képp mbindeef yépp féete leen kaw amul mbindeef bu ko dépassé la weesu arsh féete ko kaw loolu mbindeef newu fa foofu du mbindeef du temps du jamono du lenn luñ koy melal ci melokaan yooyu ndax loolu yépp ay mbindeef lañu jamono ji ñuy dund di temps bi mbindeef la loo ci mën a wax ci yooyu ay mbindeef lañ loolu yépp ak lu ci mën a am du dépasser arsh la ko féete kaw yàlla foofu la féete kaw moom arrahmanu ala al arsh istawa loolu mooy arrahman ala al arsh istawa mu féete kaw arsh boobu loolu pas-pas bu wér la boo xam yàlla moo ko saxal ci alquran yonente bi alayhi salatu wasallam saxal ko ci sunna mais pas-pas boobu doo ko fekk ci fa wala bokk li ëpp ci ñoom léegi bu fekkee saxaluñ pas-pasu ne yàlla subhanahu wa taala dafa féete kaw arsh googale te xam nañ ne imma da ngay nekk ca biti wala nga nekk ci biir kon boo nekkul ca biti yaa ngi ci biir bañ ne newul ca biti ñu ne kon mi ngi ci biir kon dafa jaxasoo ak mbindeef yi mi yàlla mi ngi fépp loolu mooy alxululul am mooy xulul bi ñuy wax jaxasoo gi nga xam ni jaxasoo lu mel ne comme butéel bi ni nga jëlee ndox mi def ko ci biir butéel bi nekkul ndox mi ndox mi nekkul butéel bi waaye ndox mi ci biir butéel bi la nekk yàlla noonu la mel ci mbindeef loolu benn xeet la ci xeetu yi loolu benn xeet la ci xeetu xulul yi ñeneen wax ne moom mooy bi mbindeef yi ñu leen tuddee ahlu wahdatul wujud mooy benn existence moo am mooy yàlla mooy mbindeef yi mais ni ñu ko expliqué ku mel Ibn Arabi daf ne yàlla mooy existence bi mbindeef yi ñoom ñooy jëmm ji mooy mu def différence entre existence wu dara ak jëmmam te loolu xam nga du dara parce que existence bu ñu ko waxee mooy jëmm ji existence lu ñu tudd ci làmmiñ la mais amul lii existence dañ ci namm rek mooy jëmm ji taxaw sa kanam mooy dafa exister mais existence bi da koo def loolu mooy yàlla mooy existence bi ngay wax mais jëmm ji mooy ñun loolu moo tax ñu uute ndax jëmm mën na uute mën na am ay kii mooy léegi nit ñi ñun ñooy jëmmu yàlla kon ñooy jëmmam mooy yàlla moom ci ñun lay feeñee loo gis ci ñun rek jëmm la ci yàlla moo tax moom daf ne loo gis rek gisee fa yàlla loolu yàlla la bu fekkee yàlla yaa ngi ko gisee ci butéel bi yàlla la bu la neexee nga jaamu ko boo ko gisee ci mbaam xuux mi yàlla la bu la neexee nga jaamu ko mais boo ko jaamoo bul def erreur wu ne loolu rek mooy yàlla bis boo ko waxee da ngay tàbbi ci shirk loolu moo tax yonent yi ñëw di tere gars yi naan leen bu leen ne yii rek mooy yàlla yi ngeen di jaamu ci la bokk waaye du moom kese moo tax bi musaa demee ci Firawn ci ci yàlla subhanahu wa taala delsi ci ndig ba bi mu delsee ñëw fekk gars yi jàmmu xërëm bi mer bi mu mer ak coow leeg lépp li ko waral mooy la fekk ñu jaamu loolu kese buñ ci boole woon leneen problème du am léegi loolu déggin boobu di wexdatul wujud boobu di gëm gëm ngëm boobu lu doy waar la ndax xulul bi nga xamante ni wax nañ ko sànq ay xaaj la muy jaxasoo bi am na beneen xaaj boo xam ne dafay mel ne jaxasoo soow moo jël sotti ko ci ndox jaxasoo goo xam ne soow day ñëw sotti ko ci ndox loolu mooy al xulu xulul bi nga xam ne xulul xaasu la mooy xulul bi nga xam ne yàlla da koy tàbbi jaxasoo ko ak jaamam ñi ci ñi nga xamante ni jaamu nañ yàlla bàgg ci benn étape bi dañuy wëlbatiku seen jëmm nekk jëmmi yàlla ñu jaxasoo ak yàlla subhanahu wa taala ñoom seen bopp ñu mujj nekk yàlla subhanahu wa taala jaxasoo bi day mel ne ndox moo sotti ci bi biir soow mook soow mi ñu jaxasoo nekk benn matière noonu la yàlla di mel ci ñoom loolu ñu ngi ci sukkandiku ci xadisu man aadaali waliyan faqad baarastuhu bil harb wala faqad baarazani bil harb ba xadis ba jeex xadis boobu mooy seen tegtal bi gën a màgg bi ñuy tegtal ak li mel ne li yàlla di wax jaamam ne ko feebaroon naa seet siwloo ma xiifoon naa leelaloo ma ak yu mel noonu mu laaj ko yow nooy feebaree nooy xiifee mu ne sama jaam diw feebaroon na boo ko joxoon lekk bi di nga ko fekk ci man ak yu mel noonu mel na comme yàlla mooy jaam bi jaam bi mooy yàlla genre xadis yu mel noonu la ñu sukkandikoo pour wax ne kon yàlla dina jaxasoog jaamam ba nekk jaam bi te loolu pas-pas bu doy waar la boo xam ne ñoom seen déggin kon ci amuk yàlla ci ñaar yooyu du ko génn imma mi ngi ci biir jaam ñi ci biir mbindeef ñi comme euh, maaya bi yàlla di wax wa ay na ma kuntum fu ngeen nekk mi ngi ak kon yàlla mi ngi fépp te xamoon ne maaya boobu maayatu xam ak gis ak euh, tiim gum tiim ak dara ñàkk ko ump ci mbiri jaam ñi ci loolu lay dellu ak xam gi ak xam gi nekk gi muy nekk ak jaamam ñi tamit ci di leen dimbali ak di leen taxawu ak yu mel noonu waaye bu dee jëmmam jaxasoo wala ak ñoom nekkul ci biir mbindeef ñi subhaanahu wa taala sori na foofu kon imma ñoom ci loolu la ñuy delloo amuk yàlla subhanahu wa taala ñooñu nga xamante ne bi ñoom ñooy wax loolu nga xam ni ku mel ne ibnu arabi bi mu ñëwee daf ne junayd ci boppam junayd nga xam ne ci seen kilifa yu mag yi ñuy dellu ci seen tariqa bi la bokk ibnu arabi nee na dégguñu dégguñu tawxid neen li tax dégguñu tawxid parce que junayd bi ñu ko laajee tawxid daf ne tawxid moom mooy ifraadul xudus anil qidam mooy lu gaar bul ko melal melokaanu lu fi mës a nekk loolu la mooy kon dafa def ñaari existence lu fi nekkoon ñu koy tuddee waajibul wujud muy al mujid ak koo xamante ne bii mawjud la boo xamante ne xaadis la nekk mumkinul wujud kon dafa am xadim ak xaadis xadim bi mooy yàlla xaadis bi mooy ki am junay di ne bul jël ki ki ki gaar soog a am nga koy def mu nekk ki fi nekkoon naka jekk di yàlla mu ne loolu mooy taf tawxid mooy kon ku nekk nga delloo ko ci am ak amam ak existence am ibnu arabi yi ñëw ne différence boobu ku ko def déggloo tawxid suyux yooyu nga xam ne ci suyuxu mutasawi fay lañ bokkoon bien que dañuy wax ittihaad dem ba bennoo mais saxal nañ ñaari existence mais nee nañ ñoom ñaar mun nañ dem ba jaxasoo nekk benn ci yenn anam yi mais Ibnu Arabi moom ñëw dafa ñëw ne moom existence benn moo am wujud bi benn la li fi nekk ci al kasra wal iftiraq wala al al ixtilaaf mi ngi dellu ci al maahiya loolu wax ji mu ci wax wax yu doy waar la yoo xam ne mi ngi ko jëlee ci philosophie li ñuy wax ci xidamul aalam ci ne monde bi dafay daf fee mës nekk comme daf fee mës a nekk amul nekk bu nekk keneen ku ko jiitu loolu rek moo fi mës a nekk bu ñu ko waxee ne yàlla mu ngi ci wax ne mbindee fii ñu ngi ci kon loolu dañ koy expliquer mais benn mbir bi rek moo fi am leneen amu fi ak jex mi yeey li mu wax ci li ñu def différence ci wàllu euh, as-sifaat wal zaat ak yu mel noonu ci yooyu la ko jëlee ak tamit ci suufiya yeey li ñuy wax ci alfana fana boobu dinañ ci ñëw insha allahu taala muy jeex ci yàlla waxiñ ci wax ci la ibnu arabi sukkandiku ba madhabam bu bon boobu mu daal di koy tabax mu nekk madhab boo xamante ni tas mutasawif yi daanaka ñi ci mujj ci ñoom ginnaaw bi bareetuñu jàpp nañ ne benn am moo am mooy ne yàlla subhanahu wa mooy mbindee fii ñi mujjee ñëw ci ci tariqam ci ay ndongaam ñi nga xamante ni bi ñoom ñoo naanee ci ma ci ci naanu balluwaayu ibnu yi ñu bari ci ñoom dañ dem ba gis ne waxam dëgërul trop ñu jéem koo gën a dëgëral am ci ñoom ñi ñëw def différence entre it mutlaq bi charte itlaq ak mutlaq bi la charte itlaq lu mel na nga ni ndox ba pare ne ndoxum géej ndoxum teen ndoxum robine xam nga yooyu dañoo ute waaye boo nee ndox ñoom ñëpp ñu dellu ci ndox ma nekk benn kon noonu la noonu la ñu demee rek boo nee man ne yow ñu uute waaye boo nee yàlla ñu nekkat benn ndax maak yow ak ñun ñëpp ñooy yàlla am ñeneen ñu ñëw gis ne loolu yëpp tamit dëgërul ndax loola nga ñu boole du lu am bu ñuy bokk dañuy bokk ci lu am ndax ndox ma nga wax tudd ko du lu am ci làmmiñ la yem ndox yi nga melal benn bu ci nekk looloo am kon loolu dëgërul ñu bàyyiwaat loolu ne benn am moo am muy amuk yàlla gi am mooy amu mbindeef yi muy wujudullah huwa aynu wujudul maxluq loolu fa lañ mujjee pas-pas boobu noonu xam ngeen ay mbiram nga xam ne nit ki kon daanaka bu fi nekkee di def ay jullee ki day def ay formalité rek mais daanaka soxloo ko woon ndax boppam lay jaamu ci loolu nga gis ne li gën gën a tàbbal ci wax yooyu bokk na ci seen fanaa bi ñuy wax muy jeex ci yàlla bi dem ba jeex ci yàlla ndax ñoom dañuy wax ci jeex ci jaamu yàlla mooy nit ki yàlla rek lay jaamu du jaamu leen dul yàlla loolu baax na mooy laa ilaha illallah comme na ko ibnu taymiya waxee jeex ci gis leen dul yàlla jeex ba dem ba sab gis jeex ci yàlla mooy loo gis yàlla nga koy jàppee loolu mënees na koo déggee ci anam bu mucc mënees na koo déggee ci anam bu muccul anam bi mucc mooy loo gis yàlla nga ciy xool du moom ngay xool comme yàlla mais yàlla nga ciy xool loo gis rek yàlla la la ci yàlla lay delloo yàlla lay fàttali muy sab gis kon benn gis la mooy yow yàlla rek ngay gis ci sa ci sa lépp tayib loolu mënees na ko déggee noonu waaye bu dee loo gis jàppee ko moom ci jëmmam mu nekk yàlla mu nekk njuumte ñaareel bi mooy marxala boobu étape boobu ñu jàpp nañu ak mat la cheikh lislaam nee na ak matadi la ndax ki gën ki mën a ràññatle mbir yi ci niñ nekkee ci seen nekkin moo gën a mat ki nga xam ne mënut a ràññatle lenn lépp benn gis-gis la am loolu nañ ci xalaat bu baax beneen bi ci des muy fanaawul wujud mooy jeex ci sak am mooy leneen amul lu dul yàlla loolu mooy seen étape bi gën a kawe ci fanaa mooy dem ba seey ba gisatoo leneen lu dul yàlla lépp yàlla la amul leneen lu am lu dul yàlla loolu boo fa àggee mooy marxalatu wahdatul wujud mooy benn existence bu ne ci sa kanam amul yàlla rek moo existé léegi nga def existence yëpp mu nekk benn yàlla ñoom gis-gis yu mel noonu lañu am ci borom bi subhanahu wa taala loolu kon mooy seen pas-pas ci yàlla ci ne imma xulul ittihaad wala wahdatul wujud ittihaad mooy bennoo mën na am ci lenn ci jaam yi mais bu fekkente ni wàllu àdduna bépp ak mbindeef yépp yàlla mi ngi ci seen biir mais tappalowul ak ñoom nekk benn waaye mi ngi ci biir mooy ñu ko saxalal ak amam bu bokkul ak amu mbindeef yi waaye ne mi ngi ci biir mbindeef yi mi ngi fepp ci noonu lay mën a bennoo ak lenn ci ay jaamam yi nga xam ne dem nañ bàgg seen état bi ñooñu seen wax moo gën a tane tuuti ndax saxalal nañ yàlla ak am saxalal mbindeef yi ak am waaye ku mel ne Ibn Arabi mi ñëw ne ne fi di def différence shirk la li am mooy benn am moo am yàlla ci lum la feeñoo nga jaamoo ko ca lu wér la yàlla ci lum la feeñoo nga jaamoo ko ca lu la loolu ay wax yu doy waar la ci wax ba wax ne lu amul am na lu amul am na mooy am na fu mu ne daf fee newul moo tax ñu ne amul fa mu ne ku ko fa mën a fekk xam ko mu ne yàlla moom moo ko mën a xam ak moom mi nga xam ne mooy waliw bu mujj ci wa yi ndax yàlla subhanahu wa day wax ne innama amruhu ida arada shay'an an yaqula lahu kun fa yakun yàlla bu bëggee sàkk mbir mu ne lu tax mu ne bu bëggee sàkk mbir mooy ne kon am na moo tax mu tuddee ko mbir te pourtant sàkkagu ko kon la mu sàkkagul bu ko tuddee mbir mooy ça existe déjà mais euh, dans l'inexistence xaw ma nu ñu koy waxee maanaam fu amul fa nga xamante ne bi mooy almaadum fa la nekk yàlla da koy jëlee foofu indi ko da koy transférer rek indi ko ci existence bi déggin boobu la ci yàlla xam bi mu xam lépp luy ama lu am ak lu amoon ak luy amagul yàlla xam ko bind ko ci lawhul mahfuz xam-xam boobu mu koy jël di ko sàkk muy am moom loolu nga xam ne ab xam-xam la loolu la jàppee benn existence boo xam ne de ça se trouve quelque part yàlla fa la koy jëlee di ko indi muy am mu ne foofa moom fa lay dem di tibbe moo tax nee na moom soxlawul jaar ci yonent bi parce que moog yàlla ñoo bokk balluwaay bi ñuy jëlee ndax moom mooy xaatimul awliya ibnu arabi loolu lay wax pas-pas boobu ngay fekk ci lenn ci suyuxu mutasawwifa yi ñu koy gëm gëm ne ñoog yàlla ñoo bokk fa ñuy tibbee ibnu arabi mi ci sori dëgg loolu la gëm ci seen ponkal yi la bokk seen yoon ci jaamu yàlla jaamu yàlla xam nañ ni euh, nit ki war na cee sàmm ay mbir mooy ki muy jaamu li muy jaamoo ak ni muy jaamoo loolu yépp foog mu nekk lu wér ci lislaam ki ngay jaamu yàlla subhanahu wa xamal nañ ki gën a mën a jaamu ci nit ñi ne ko boo jaamu woon len boo boo jaamu woon leneen lu dul yàlla subhanahu wa taala yàlla neenal say jëf kon yàlla lañ ñu war a jaamu niñ koy jaamoo itam xamal nañu ne ci yoonu yonente bi alayhi salatu wasalam lañu war a jaar man amila amalan laysa alayhi amruna fa huwa radd sallallahu alayhi wa sallam ci yoonam lañu war a jaar ci niñ koy jaamoo ak liñ koy jaamoo mu xamal ñu ko ndax mën nga xam ki ngay jaamu xam liñ koy jaamoo waaye ni nga koy jaamoo foog nga tënku ci ci li yonente bi alayhi salatu wasalam jàngale loolu moo tax kon ab jaamu yàlla mën na nekk jaamu yàlla bu ñu yoonal ci kaw nii santaane ko nga def ko ngir yàlla te du nekk jaamu yàlla mooy defin bi lañ la santul defin bi kenn santuloo ko ndax yàlla bu ne aqimu sola nga dem def lu la neex ne lii mooy aqimu sola ji yàlla wax xam nga ni li nga def jaamuwuloo yàlla fokk nga def salaa boobu la yàlla sant ci anam bi la ko yàlla subhanahu wa taala sante mu soog a nekk ab jaamu yàlla comme ñu ko waxee ci koor ñu ko waxee ci aj màkka tey koor rek weer wi ñu nekk nii boo ko wooroon ne woor nga ramadan sa koor wérul pourtant woor nga comme ni ñuy wooree li ñuy war a bàyyi bàyyi nga ko li ñuy war a def def nga ko mais temps bi nga sàmmoontewul donc moo tax nekkatul ab jaamu loolu jaamu yàlla yépp principe boobu danga ko cee war a sàmm fi mu nekk nii bu jant bi soowee rek nga daal ne da ngay julli fajar te timis moo jot est-ce que dina wér pourtant temps bi nga changé donc moo yàq julli gi wala nga yokk ci fajar benn rakka wala ñaar rakka rek mu daal di yàqu loolu mooy wane ne kon defin bi lu yàlla santaane nañ ci tënku ci lim li ñu yonante bi alayhi salatu wasalam jox la loolu nag euh, problème la boo xamante ne doo ko fekk ci ñoom beneen bi ci des mooy sunna bi nga xamante ni sunna ñaari xaaj la sunna boo xam ne da ngay topp lu yonent bi alayhi salatu def ndax moo ko def nga def ko comme ni mu ko defee nga roy ko muy sunna fi'liya ak loo xam ne da koo bàyyi te waroon koo mën a def dara doxul digganteem ak mu bàyyi ko mu tëb tëb bàyyi ko ñu xam ne kon da koo bàyyi ndax bëggu koo def loolu boo ko bàyyee dafay nekk sunna ba léegi mooy ne kon sunna dafa am fi'liya am tarkiya ci loolu lañ xamee ne kon loo xamante ni lu ko waral mi ngi ci amoon na ci jamono yonent bi alayhi salatu wasallam te amul lu dox digganteem ak mu def ko te taxul mu def ko loolu boo ko defee ginnaawam yokku nga ci sharia yokku nga ci l'islam règle yooyu bu ñu ci jógee ñu xool ñoom seen doxalin li ci njëkk mooy cheikh lislam taymi rahimahullah li mu wax ne alxaalisu minhum yabudu allaha waxda lakin aktharu ma yabuduhu bi gayri shariati alquraniyati almuhammadiya mu ne fahum munxarifuuna imma an shahadati an la ilaha illa allah wa imma an shahadati anna muhammadan rasulullah li ñu waxoon sànq ci tàmbali bi li yonente bi alayhi salaam définir islam mooy ki ngay jaamu kan la ak li nga koy jaamoo lan la Cheikh Islam Taymiyya neex nee na ñi sànku ci ñoom dëgg ki ñuy jaamu sax dañ cee réer dañ cee sànku seen jaamu seen objectif ci seen jaamu jëmul ci yàlla daf cee réer ñi ci góorgóorlu ci ñoom ba jub ba mucc ayib mucc nañ ci loola dinañ jaamu yàlla wéetal ko ci njaamu gi waaye jaamu win bi nee lu ci ëpp duñ tënku ci li yàlla jox Muhammad sallallahu alayhi wa sallam loolu nekkul seen doxalin ndax duñ gëstu loolu di ci tënku ci anam bi nga xamante ni moom lañ ko waxee léegi loolu moo waral kenn ci ñoom dem ba ni duuna ay taraddudin ak turuq ila allahi bi adadi anfasil xalaayiqi kenn ci ñoom dem ba ni sikki sàkk amul ne yoon yi yóbbu nit ñi ci yàlla mook noy yi doomu adama yi ñoo tolloo mook noy yi nit ñi ñoo tolloo yoon yi nit ñi mën a jaar ngir àgg seen borom kon benn yoon rek tënku ci newu fi beneen bi ci des seen jubluwaay ci seen jaamu yàlla li ci ñu bari xamul ci melal bi ñu leen di melal ne ñu góorgóorlu lañ ci jaamu yàlla mooy dañu am njuumte ñoom ci objectif ban lañ am ci jaamu yàlla ndax ñoom waxoon nañ ci tàmbali bi ne ñoom seen jaamu yàlla ne nañ nekk ci di jaamu yàlla ngir ragal safara bëgg aljana bokkaale la wala ak matadi la ci sa jaamu yàlla boo dee jaamu yàlla da nga war a jaamu yàlla xubban ngir bëgg ñu sori si ñoom dëgg duñu wax xubb may shawq la ñuy wala euh, ishq la ñuy wax ishq muy nopp nopp yàlla muy bëgg a dem ba bennoo ak moom jaxasoo ak moom jox ko sa jëmm ji mu jeex ci yow ñoom loolu la ñuy jëfandikoo moo tax duñu jëfandikoo baatu xubb bi nga xam ne mooy bëgg gi ci alquran ak sunna ñu bàyyi ko di jëfandikoo nopp te loolu yellul ñu koy jëfandikoo ci yàlla subhanahu wa taala mais bëgg sori ci wax moo tax ñu wax ko léegi ñoom fàtte nañ ne safara nit ki ragalu ko ngir ragal jëmmi safara mais yàlla moo ko ko ragalloo kon mu war koo ragal ngir ragalu ragal loo ko yàlla ragalloo wad'uuhu xawfan wa tamaan innahum kaanu yusaaricuuna fi lxayraat wa yad'uunana ragaban wa rahaban wa kaanu lana xaashiin ar raxba wa rahba mooy ñaari ruknu ñaari ponk jaamu yàlla ci liñ lay sant ngay xemmem di def ngir yool bi liñ lay tere ngay ragal di bañ a def ngir fay ngir fay ba yool bi du rek aljanna waaye ngërëmu yàlla la ndax aljanna moo koy jëmmal te aljanna mooy li gën a màgg ci lu nit di ut ndax fa la mën a amee gis boromam subhanahu wa taala ki nga xam ne xéewal mënu koo gën a kon ñoom buñ ne soxlawuñu loolu leneen la ñuy ut kon loolu war nañu laaj lan la ak gi nga xamante ne kii ku fa ku fa jëm kalla innahum an rabbihim yawma idin la mahjubun yàlla xañ la gis boobu xañ la xéewal googu kon nit ki war na koo ragal ndax boo bëggee dara boo bëggee kenn mbëgg gu wér di nga bëgg lu mu bëgg ragal lu mu bañ kon ñoom bu fekkoon seen xubb bi lu wér la dina waral ci ñoom xawf dina waral ci ñoom raja mais ñoom loolu la ñuy woo ba pare walbatiku yaakaar ne jaamu yàlla yi ñuy def seen objectif ci loolu mooy am ay mbir yu mu leen jural mbir yooyu mooy lan mooy ne lu bari ci lu nit ñi xamul ci erreur yu mutasawifa mooy seen objectif ci seen jaamu yàlla mooy am ay yëg-yëg yu mu leen di jural ak ay mbir yu ñuy découvrir muy lu ñu tuddee ay kashf ay fatx yu mel noonu mooy seen jaamu yàlla pour ñoom boo ci nekkee di ci def tarbiya nekk ci mar marxalatu tarqiya yaakaar nañ ni war nga di am ay mbir yu la yàlla di baaxee nga koy gis bu fekkee sa jaamu yàlla dëgg dëgg dëgg wér na yàlla war na la di wan ay mbir nga koy gis dem ba àgg ci foo xamante ne dangay mën di wax mbir amal mu am di jeexital ci jamono ji ni muy doxee di wax mbir amal mu am mbir bul am du am fekk àgguloo foofu xamal ni sak wilaaye des na àggaguloo sa jaamu yàlla des naa wér loolu dem ba nekk ay objectif yoo xam ne ñoom dañ koy viser ci seen wérdi yi ñuy def ak jaamu yàlla yi ñuy def ak góor góorlu bi yépp lu ci ëpp nekkul ngir am ngërëmu yàlla am fayu yàlla boobu ñu doon doyadal mais pour am récompense yooyu nga xam ne da ngay mën di def ay xar baax ndax jàpp nañ ne loolu mooy firndeel sax nekk wal yi loolu yóbbu leen ci dem bay jëfandikoo ay moyens yoo xamante ni njabar la dem ba ñu bari si ñoom tàbbi ci sixar ci njabar gu wér péng ci turu bëgg a def xar à tout prix nga def ay xar baax pour wane ne yow wali nga mu yóbbu leen ci lu bari ci mutasawwifa yi dañuy jëfandikoo ilmu sihr ci pour mën di di naaw ci jamo jamono jeeg di dox ci ay ndox di waxloo ay bàyyi maag di feeñu ay nit guddi ak di def yooyu parce que fekk àgguloo ci mara maratib yooyu ci étape yooyu àgguloo sa li ngay góor góorlu yépp gisaguloo njariñ li gisaguloo fruit bi loolu moo tax mu dem ba elmu tasawuf cheikh yi ci suyux yi ci màcc yu ci bari dañuy xam ilmu sixr dañuy jëfandikoo sixr wala ñuy am ay njabarkat yoo xam ne ñoom la ñuy dem leen teel di jëflanteeg ñoom ñoom ñu leen di liggéeyal di leen defal seen yenn mbir yi kon ñoom jàpp nañ ne imma nit ki dem ba àgg foo xam day gis yàlla di ko woon ay mbir muy tëdd ay mbir di ko feeñu muy yeew naan gis naa nangam yonent bi feeñu na ma wala yooyu wala dem ba yaakaar ni foog muy am ay ndigal yu muy mën a joxe ci jamono ji muy tàbbi nangam na am mu am ak yu mel noonu nit feebar nga ni na wér na wér wala yooyu sa coobare di nekk luy am ci jamono ji am na ñoo xam jàpp nañu ñaar yi boo ko boolee ci ngay nekkee ku mat moo tax Shibli di wax ne kullu waliyin laa yakunu lahu mu'jiza fa huwa kadhab Shibli di wax ne bépp wali yi buy woote woon ne wali nga te amuloo ay xar mbaax ay kéemtaan yooy def xam leen ne ab fenkat la foog muy def ay kawteef ay kéemtaan yu doy war alors que mat dëgg-dëgg mi ngi nekk ci topp yàlla ak sunna yonente bi alayhi salatu wasalam même boo mënta naawloo ab lëppaa sax ci yaa awliyaawullaa yi nga kon du foofu lañ nattee wilaaya loolu dina ñëw ci kanam tuuti xëy na est-ce que nañ ci mën a àgg sax beneen bi ci des mooy ne ci bunt boobu lu bari ci mutasawwifa fay li tax boo leen di wax ci buntu sos ci diine lu ñu ko mën a dégg mooy defuñu différence ak buntu li nga xam ne ay aada la ay mbaax yu ñuy topp ci àdduna ak li nga xam ne ay jaamu yàlla la duñ nangoo def différence dañ lay wax ne yéen a ngi def nangam ak sàngam te yonent bi daaw ko def sallallahu alayhi wa sallam kon yi ngeen ñuy tere waroo leen ñu koo mën a tere pour nga comprendre loo ab mutasawif ne ñaari bunt yooyu bokkuñu ay delluwaay bokkuñu ay sukkandikukaay lu jafe la jàpp nañ ni nit ñi di sosee seen wàllu àdduna ay mbir di ci def noonu lañ sañee ñoom tamit def la de moo tax ñuy jëfandikoo lu mel ne xadisu antum aalamu bi umuri dunyaakum yooyu xadis yooyu dañ koy jëfandikoo pour wan ne la kon mën ngaa yokk ay mbir def ay mbir ndax yonent bi alayhi salaam am na yoo xam daf leen ci bàyyi woon ak seen ndigal beneen bi ci des mooy li nga xamul mooy ne mu tasaw yu fay jaamu yàlla gi ñu leen di jiiñ yépp yépp yépp yépp am na ci lu bari ci ay mooy yàlla yoo xam ne dañ koy def wala bu ñu ko deful tamit ñu koy saxal ci ki koy def ndax dañuy sukkandiku ci ndogal ndax déggin bi ñu am ci ndogal njuumte la ahlu tasawuf ay qadariya lañ ay jabariya lañ ndax ahlu tasawuf dañ jàpp ne yàlla mooy baaxal ku ko soob nit day def lu bon ñuy sukkandiku ñoom ci ndogalu yàlla ci bañ koo ŋàññi ak wane ne yàlla moo ko baaxalul yàlla mooy baaxal ku ko soob loolu ci subuhaat yi gën a rëy ci subuhaatu mu tasawifa ci la bokk moo tax ahlu tasawuf la plupart du njittewoo al amru bil maaruf wa li nit ñi def ci ay bàkkaar yépp ak ci ay mooy ñoom dañ koy delloo chaque fois ci ndogal moo tax ngay dégg ñenn ci ñoom naan nekk fi di jàpp nit ñi di critiquer naan ñi ngi njaaloo ñi ngi nangam yépp ci yàlla lay dellu rek waaw yàlla yàlla la rek bu soobee yàlla ñëpp mën na koo baaxal loolu la ñuy wax ñoom chaque fois pour bañ a wax société bi pour jéem leen a jubbanti teg leen ci njub moo tax ñenn ci ñoom dañ dem bay jëfandikoo laa tasubbu dahra ana dahr inna allaha huwa dahr laa tasubbu dahr yàlla mooy jamono bu leen ŋàññi jamono te xamuñ na jamono jooju yonent bi di wax ne bu leen ko ŋàññi mooy àdduna bi tàng bi muy tàng ak sedd bi muy sedd ak ngelaw yi muy ngelaw nga koy wax ci benn façon bi te loolu yàlla moo koy def mais ça ne veut pas dire que yàquteeg nit ñi ak seenu caay yàlla la boo ko dénoncé yàlla ngay ŋàññi moo tax ñan su ñoom di wax ne koo xamante ne dem na ba àgg ci buntu xool ndogal dëgg-dëgg ba gis ndogal du ŋàññi kenn moo tax ñu naan al aarif yaxillu lahu kullu shay koo xam ne dem na ba xam dëgg-dëgg ndogal ci yàlla képp ku mu gis ngay def rek dina xam ne kii li muy def topp yàlla la ndax yàlla moo ko ko sant mu koy def wa ma tashaauna illa an yasha allahu rabbul alamin yàlla moo ko ko sant mu koy def ñu jaxase bayna al amr al kawni wal amr al shar'i dañ jaawale ñaari ndigal ci ndigalu yàlla yi ndigalu yàlla bi yàlla wax ne kenn mënu koo génn mooy ndigal gi nga xam ni mooy ndigalu suñu dund ak suñu nekkin ak tàggat ak doxal bi yàlla di doxal jamono ji amra kaw nii lañ koy tuddee loolu ak ndogal ak euh, nu mu tëddati ak digle yi yàlla di digle ci alxuraan ak sunna ak yooyu jotewuñ dara loolu mooy li yàlla dogal ci jaamam ñi ci wàllu doxalin ak nekkin ne lim ci doxal lim ci dogal kenn mënu ci dara loolu kenn du ci sukkandiku ci buntu lim ñu sant ak lim ñu tere kenn du neenal li yàlla santaane wala ngay def li mu tere ci ne yàlla subhanahu wa taala moo ko dogal ci man di def ixtijaaj bil qadar moo tax cheikh l'islam di wax ne ñoom dañoo nekk en contradiction parce que kenn ku nekk ci ñoom boo ko ñëwoon dóor ko ab pes da dóor ab pes du ne yàllaa ko dogal boo ñëwoon nangu alalam du ne yàllaa ko dogal boo ñëwoon def ko lu ko metti dafay fayu wala mu mer mais du ne yàlla moo ko dogal te bu ñëwee ci bunt mooy yàlla yi ak yooyu di sukkandiku ci ne moom lu nit def topp yàlla la au fond ndax loolu yàlla moo ko dogal ci moom philosophie boobu lu mu tasaw fay gëm la xëy na ñi xamul tasawuf mais mu tasaw fay dëgg lu nit nekk topp yàlla la ndax ñépp duñ génn ndigalu yàlla te xamuñ ne ndigal boobu mooy ndigal bi dellu ci alkawnu mais delluwul ci ashar bi ñuy mujjee ci waxtaan bi mooy seenu jéggi dayoo ak mu tasawifa seen diine li ci ëpp jéggi dayoo la muy alxuluw ñu wax ne loolu yonente bi alayhi salatu wasallam saa bu musaan a nar feeñ ci jamonoom mu delloo ko ba mu toogee ci jàkka ji di wax gis benn waaye taxaw ci ci jant bi daf ne lii lan la ñu ne ko kiré mooy diw nee na dafa nizar ne day taxaw ci jant bi du dem ci kër gi ba pare day woor mu ne nee leen ko na mottali kooram waaye na jóge ci jant bi mu toog te dem toogi ci kër gi jant bi mu taxaw te dem toogi ci ker gi mu tëj buntu boobu ñoom Usmaan ibnu Mad'un biñ ñëwee ak seen tàngoor ci këram laajte li muy def yépp ñu wax leen ko ñu xeeb ko ne moom yàlla jéggal na ko lu jiitu ci ay bàkkaaram ak li mujj ñun matuñu ñenn si ñoom ne dootuñu dog dañuy woor naka jekk ñenn si ñoom ne dootuñu nelaw guddi ñenn si ñoom ne dootuñu sëy ak jigéen yonente bi alayhi salatu salaam bi mu ñëwee daf leen xamal ne maa leen gën a ragal yàlla gën leen a xam yàlla subhanahu wa taala ndax xam yàlla mooy waral ci nit mu ragal yàlla xam yàlla gu waralul ci nit ragal yàlla tënku ci ay ndigalam bàyyi ay tereem loolu du xam yàlla damay takk ay soxna damay wor di dog damay euh, nelaw guddi di julli guddi fa man raxiba an sunnati fa laysa minni mu wane ne kon xulu nekkul lu bokk ci diineem moo tax mu doon wax naan iyaakum wal xulu mooy tandiku leen jéggi dayoo ci diine mu doon wax tamit naan buistu bil xanafiyati samxa buistu bil xanafiyati samxa doon wax ne yàlla daf ko yebal ci diin ak tawxid goo xam ne dafa nekk diin ak jàppandal taral amu ci doon wax naan lan yushadda diina a illa galaba lan yushadda diina ahadun illa galaba iklafu min al amali ma tutiqun doon wax naan fa inna allaha laa yamallu xatta tamallu yàlla du tàyyi fekk tàyyiwuloo leen mooy yàlla du tàyyi même bu ngeen tàyyee du caagante ni bu ngeen fekk tàyyiwoo leen du tàyyi yàlla du tàyyi mooy yàlla du tàyyi même bu ngeen tàyyee laa yamallu xatta tamallu mooy laa yamallu wa in tamallu xuluwuhum muy seen jégg dayoo ci kim njëkk ci seen jégg dayoo googu mooy ci yonente bi alayhi salatu wasalam ci yaakaar ne bëgg ko ak màggal ko mi ngi nekk ci yàllaal ko def ko muy yàlla yonente bi alayhi salatu salaam bëgg ko ak màggal ko mi ngi nekk ci jaamal ko def ko muy ab jaamu yàlla bi gën a mat ci jaamu yàlla yi ki la gën a mat ak njaamoom ci yàlla moo la gën a mat kon màggal nit mi ngi nekk ci matal ak jaamoom ji mu nekk jaamu yàlla moo tax ñi juumoon ci banu Israël jël seeni yonent jéggi dayoo ci ñoom bëgg leen yàllal yàlla wax ne juum nañ juum nañ muy ahlul kitab bi mu wax ne laa taxlu fi dinikum wala taqulu ala illa alxaq am ci mutasawifa yi bi ñu ñëwee ñoom tamit ñu jaaraat ci yoon boobu mu am ci jullit ñoo xam dañu ñëw jaaraat ci yoon boobu ahlul kitab jaaroon ci xulu bi ñu defoon ci seeni yonent ak seeni saalihin yaakaar ni bëgg leen ak màggal leen mi ngi nekk ci jéggal leen dayoo génn leen ci cadre nit yóbbu leen ci cadre borom bi subhanahu wa taala yonente bi alayhi salatu wasallam mu see joxe jàngale bu am solo benn bis dafa am ku ko dikkal ne ko damaa gént dajeeg benn ab euh, ab ab chrétien ab nasaraan yi ne ko yéen day waa ahlul kitab ñu baax ngeen doon doon bu fekk woon wax ji ngeen di wax naan isa doomu yàlla la nee na waa ji ne ma man tamit yéen jullit ñi ñu baax ngeen doon doon bu dul woon li ngeen di wax naan bu soobee yàlla soob muhammad waa ji ñëw wax ko yonente bi alayhi salatu wasallam yonente bi alayhi salatu wasallam tegu ci bat dafa yéeg ci minbar bi ne am na wax ju ngeen wax ma bëgg leen ko tere kersa tax terew ma leen ko bu ko kenn waxati ci yéen nettali leen ko ne bu kenn waxati ci yéen insha allah wa shaa muhammad kuy wax na wax ne insha allah summa shaa fulaan mais bu kenn waxati loolu ci yéen mu tëj buntu boobu kon wane na ni foofu ña nga fa bëggoon jaare xulu bi ahlul kitaab bi woon ñoom tam ñaaroon ci bi ci jéggi dayoo moo tax mu doon wax ne laa tataruni kama atarati nasara isa ibn mariam bu leen may ëppalal sama dayoo di ma jéggil dayoo comme ni ko nasaraan yi defee ci isa ibn mariam innama ana abdullahi fa qulu abdullahi wa rasul jaamu yàlla la de leen wax jaamu yàlla akub yonam tam ba nit taxawee ba mu taxawee ci kanamu nit mu naan ko anta sayiduna wabnu sayidina def ne ko quulu bi qawlikum aw bi baadi qawlikum wala yastajriyannakum cheytaan wax leen lu ngeen xam te bañ a topp cheytaane mu leen di nërmeel ak di leen sànq wax leen wax ju yam wax joo xamante ne wax ju ñàkk jéggi dayoo la kon yonente bi alayhi salatu wasallam ku mës a tëj buntu boobu la waaye ñoom yaakaar nañ ne li yàlla di wax yépp naan qul innama ana basharun mislukum yuha ilayya ak li mu waxoon ne innama ana basharun mislukum ansa kama na fa ida nasitu fa zakkiruni yooyu ay wax la nii rek ci kaw pour sama genre yi sama classe gi wa illa moom yàlla moo tibb ci leeram bind ko yàlla moo tibb ci leeram bind ko loolu koy mooy yàlla la yàlla kan moo wax ne am na matière boo xam ne moom ci la nekk ba ciy tibb di ci bindaate loolu mooy njëkk a doy dal yàlla ñaareel bi kan moo wax ne yàlla leer la leer mbindeefu yàlla la ko yàlla sàkk malaaka yi ay leer lañ kon yàlla leer la comme malaaka yi bay jël ci leeram di bindaate yàlla xam nañ ni xijaab bi dox suñu diggante ak moom ba ñun mënuñu koo gis ak leer la bu ko dindi woon fépp foo xamante ni bii bëtam yam na fa mooy kon mbindeefam yépp ndax bëtam weesu na sax mbindeef yi kanamam ceeñeeri kanamam dina ko dina ko lakk la axraqat sabuhaatu wajihi waxul nuur wajihi daf ne sabuhaatu wajihi kon jëmmi ne yàlla subhanahu wa taala dafa jël ci leeram bind ko ba ñenn ci ñoom di jéem a tontu ñi leen di wax ne kon yàlla daa jël ci jëmmam bind yonent bi kon loolu am na lu mu wàññi ci yàlla mu ne mi ngi mel ne nga tëj ab néeg taal làmp lay génne ca xarante bunt ya du wàññi ci leer ga dara te loolu c'est faux leer bi bu amul fu mu jaar ci la concentration di gën a foor que bu amee fu mu jaar la cay jaar di génn feneen loolu day wàññi degré wu leeraay bi kon loolu wax ne wàññiwu ci dara du dëgg ba pare wax ne yàlla moo ko jël ci jëmmam bind ko loolu amul fu mu wér wérul yàlla moo ko bind ci leeram ku yàlla bind ci moom la la bindee loolu benn ñaareel bi ci des mooy li wax ne moo tax yàlla bind képp ku mu bind yàlla moo tax mu bind la lawlaaka lawlaaka maa xalaqtul aflaak xadis yoo xam ne mawduwaat wérul jaaduwul sax ñu koy askane la yonente bi alayhi salatu wasalaam xadis bi ci xaw a wér nekk ci mustadrakul xaakim ci ne yonente bi alayhi salatu wasalaam dafa wax ne damaa nekk ab yonent fekk aadama mi ngi ci diggante Euh, bay tiini wal ma mi ngi ci diggante ban ak ndox ci nu mel noonu lañ ko waxee te cheikh lislaam nee na loolu sax wérul ndax aadam mosul nekk diggante ban ak ndox aadam sa nekk diggante ban ak ndox loolu wérul waaye bu ñu waxoon sa xadis boobu ne yonent ba muy nekk yonent fekk aadam pare mbindam pareegul loolu day dellu ci ndogalu yàlla bu la neexee nga ne nekk nga étudiant fekk ne aadam yàlla bindagu ko loolu wér na wala wérul est-ce que day tegtal ne kon boob moom yonante la mi ngi toog yàlla def ko ab yonante mu ferenkulaay di xool aadama ñu koy sàkk ñoom gis-gis boobu lañ ci am fekk ne loolu wérul xayru saxiix kon ci ki ñu njëkk a bew ñoom di ci jéggi dayoo mooy yonante bi alayhi salatu wasalam ci di ko tappal ay gratte yàlla yaakaar ne loolu mooy bëgg ko seen bëgg gi ñu bëgg yonante bi yépp fa la lu yàlla sàkk moom moo tax euh, boo ko ñaanee mu may la du moroomu gaa yi raw na leen Mamadou Lamine moo sut gaa moo leen ëpp borom nangam njol màkkam leneen la ci des mooy seen machaayix yi seen njiit yi loolu moom l'islam digle na yaru diggante nit ki ak borom xam ak respecté borom xam-xam waaye ëppal l'islam santaanewu ko seen ëppal gi ñu ëppal ci seen borom seen i njiit seen i cheikh dafay dellu ci déggin bi ñu am ci wali yi ndax jàpp ay awliya lañ waliw xam nañ ne yàlla subhanahu wa taala li mu wax ci quran mooy ala inna awliya la xawfun alayhim wala hum yaxzanuun lan la ci teg daf ne allazina amanu wa kaanu yàlla waliw yi mu bégal ci ñàkk am ragal gu ñuy ragal ca la ñuy fekki ak la ñu bàyyi ci seen gannaaw ñu ci am njàqare daf na ñooñu mooy ñii nga xamante ne dañ gëm yàlla ba pare wattandiku borom bi subhanahu wa taala mooy kii am gëm yàlla gu wér ba pare am istiqaama am njub ndax taqwa mooy istiqaama mooy lu yonent bi waxoon Sufyaan ibn Nawfal waa ji ñëwoon ne ko wax ma wax joo xam ne ci l'islam dootu moo ko laajati keneen da nga may résumer l'islam résumer ma ko ci deux mots deux mots yonent bi ne ko qul amantu billahi thumma istaqim islaama ngoog gëmal yàlla ngëm yàlla gu wér te tegu ci istiqaama tegu ci njub loolu kay lislaam lépp lislaam mi ngi ci loolu la yàlla wax ne képp ku ci ne waliwu yàlla nga waayu yàlla nga mu des nag ñecce ne dañ ciy ëppante dañ ciy sutante lu nit ki gën a góorgóorlu ci ñaari ruknu yooyu ñaari piliers yooyu mooy al iman wa taqwa wilaayam di gën a mat ca yàlla loolu mooy wilaaya loolu kon góorgóorlu gu nit di def la ci ay jaamu yàllam di ci gën di sori diggante gën di sori ci wilayatullah di nekk waayub yàlla loolu mooy waliwu yàlla subhanahu wa taala gi yàlla subhanahu wa taala di ñoom nag waliwu yàlla pour ñoom benn grade la boo xam ne yàlla mooy ñëw rek nommé général nga nekk général léegi yor commandement bi di def lu la neex déggin bi ñu ci am nekk déggin bu doy doy doy waar déggin boobu ñu ci am nga xamante ni bi moom moo euh, mooy mbir mi mooy point de départ bi ci seen relation yi am ak seen gars yi bi ci njëkk mooy ki gën a màgg ci yonent yi mooy ki gën a màgg ci wàlli yi awliya yi mooy yonent yi di al anbiya wa rusul ñi ci gën a màgg ci gën cee am darajatu wilaaya gi gën a kawe mooy ulul azm ki ci gën a kawe mooy muhammad ibn abdillah jamaa bayna al wilaya wa nubuwa ibn yi moom lan la wax nee na yonent yi ay anbiya lañ ay awliya lañ bu dee nubuwa gi c'est vrai ay garat la yu leen yàlla jox mais wilaaya gi sama suuf lañ nekk ndax man maay xaatimul awliya comme ni Muhammad nekkee xaatimul anbiya man maay xaatimul awliya waliw buy waliw maa la gën te ñoom ci seen nubuwa am na lu ma leen soxlaal mais li ñu ma soxlaal ci wilaaya moo ko ëpp kon sama ginnaaw la ñuy topp xaatimul awliya googu nga xamante ni euh, alxakimu tirmidi te Muhammad ibn Ali ak tirmidi benn waaye ci ñu njëkkoon daan amoon na ak yëngatu ci xadis la chak mais ku soobu la ci pas-pasit tasawuf am ci ay xalaatin ak ay gisin yu doy waar bokk na ci xalaatin yooyu moom moo njëkk a indi idée wu xaatimul awliya ne daa am koo xam ne mooy ñëw nekk axirul awliya xaatimul awliya bi mu waxee loolu wax ci ay ngëneel yu bari yoo xam ne kooku dina ko am am ay gars yu ñëw fëgg seen dënn ne ñoom la ibn yi ñëw ne moom la ndax nee na dèjà moom muhammad ibn ali la tudd comme ne ko xakimu tirmidi tuddee tey xakimu tirmidi yi wax comme ay question ne kii nekk xaatimul awliya bu ñëwee moo koy résoudre moo koy solutionné nee na yooyu yépp moom moo ko tontu moo ko tontu sax ba yokku ci am ñeneen ñu ñëw indi yeneen ku mel ne ak Tijani yi Ahmadu Tijani yi moom bi mu ñuy def ne mooy xaatimul awliya Baye Niass sax nee na mooy xaatimul awliya mais problème mooy ñi mujjee ñëw dañoo xam ne bu ñu waxee xaatimul awliya mooy tëj bunt bi day causer problème ñu ne xaatimul awliya ka ko doon wax li mu ci namm mooy mooy ki ci gën rek même bu amee ñu ñëw ci ginnaam nekk ay awliya mais boo xoolee idée bi dëgg-dëgg ko njëkk wax li mu ci namm mooy mooy tëj buntu bi mooy kon ku gëm yàlla gëm yàlla ku wér ragal yàlla dootul ñëwati ginnaawam bu dee ginnaaw yonent yi ki gën a màgg ci awliyaa yi mooy abu Siddiq ginnaaw ba Omar ibn al-Khattab ak euh, Ousmane Ali ginnaaw ba baqiyatul ashara al muhajirun wal ansar ak ñooñu ñoo ñi gën ci awliyaa yi ñoo ñi ci jiitu beneen bi ci des mooy nekk waliw desu ci charte nga nekk maasum ne doo jum nit mën na nekk waliw di jum ndax yonent bi def ne kullu ibni aadam xata ay doomu aadama lañ te yonent bi def ne bépp doomu aadama dafay jum yonent yi sax borom xam-xam yi dañuy wax ne dañuy juum yonent bi daf ne woon innama ana basharu mislukum ansa kama tansawun nisyan njuumte la ndax boo fàttee da ngay juum fàtte yu mel noonu daan na ko def sax wala la daan na ko def donte am na xadis bu ñëw ne la ansa wa innama wa innama unassa li na man du ma fàtte waaye dañ may fàtteloo ngir ma yoonal waaye xadis bi wérul xadis boobu wérul mi ngi ci Muwatta al imam Malik ci balaaxaatu Malik yi nga xam ne wérul ci la bokk kon Cheikh Lislaam na nekkul ci charte nga nekk wali ne foog mu nekk maasum boo xam dañ koy fekk ci njuumte loolu rafida yi ñoo ko njëkk am seen i njiit seen i aima mu tasaw fay jëlee ko ci ñoom ne nit ki nekkee waliw mooy maasum lay doon lépp luy jógeeti ci ci moom dootul nekkati njuumte nit mën na nekk waliw du tere ba léegi dina am ay njuumte yu am yuy tàbbi ci moom dina am sax lenn lu mu mën a ñàkk xam ci sharia loo xamante ni da koy rëcc beneen bi ci des mooy nekkul ci charte waliw tamit ngay def ay xar mbaax di loo ay mbaam ak di dox ci ay ndox ak dinaaw ci ay jaww ji loolu nekkul ne charte pour nit ki nekk wàllu foog mu def loolu moo tax qurtubi ne qaala ulamauna rahmatullahi alayhim wa man adhara allahu taala ala yadayhi mimman laysa bi nabiyin karamat wa xawaariq lil aadat fa laysa dalika dallan ala wilayatihi qurtubi nee na waxuma la sax nekk charte ci nga nekk walliw nga def mbaax xar mbaax mais nit ki yàlla mën na tàbbal ci loxoom loo xam ne dafa xar mbaax te kenn du ci sukkandiku ne kon ab waliw la kenn du sukkandiku ne kon ab wàlliwu la yàlla mën na defal nit ci loxoom ay karamaat lenn ci karama mu am lu xotti mbaax lu nit ñi xamoon te kenn du ci daal di sukkandiku automatiquement ne kon ab wàlliwu yàlla la déggin boobu mu tasawufa yi ñoo ko tas ci biir jullit ñi mu ne xilaafan li baadi suufiyati wa rafidati xaytu qaalu inna dalika yadullu ala annahu wali id law lam yakun waliyan ma adhara allahu ala yadayhi ma adhara xurtu bi ne loolu nag ute naag mutasawifa yi ak rafida yi nga xam ne dañ jàpp ne ku loolu am rek ci yow ab waliw nga ndax bul bu la yàlla defuloon ab waliw kon du la defal lu mel noonu loolu njumte la bu xat xatmul wilaaya moom liñ ci mën a wax lu baree baree bare la ci nga xamante ni ibnu arabi wax na ko ci euh, ak tijaani bi mu ñëwee moom tamit waxaat ci ay wax yu doy doy waar ak li mu wax ne indi na ko ba ni sax moom li ibnu li kële tontu ibnu arabi tontu ci question yi xakimu tirmidi yi waxoon tontu na ca ba yokkal ko ca moom yu kooku posé wul woon yoo xam ne moom rek moo ko xam ak yu mel noonu ñoom dañ jàpp ne wali yi ki ci gën a màgg mooy bu bi nga xamante ni bi mooy kiy doxal jamono jo jamono ci loxoom la ko yàlla di teg amam ci jamono mi ngi mel ne ni ruu mel ci jëmm nga xam ne daanaka mooy ruu àdduna bi mooy ruu bi nga xam ne mooy wër wër ci àdduna bi yépp lu fi xew problème bu am moo koy lijjanti lu fi am mi ngi koy gis li ci teg bëtam lu am partout dans le monde kooku mooy xutbu bi ñuy xutbu zaman kooku mooy martaba bi gën a kawee ci martabatul awliya ndax ñenn ci ñoom dañuy wax ne martaba bi ci jiitu mooy martaba bi nga xam ne da ngay nekk di dox ci naaw ci ngelaw li di dox ci ay ay ndox boobu mooy martaba bi gën a tudd ci maratibul awliya kon ñoom loolu sax nekkul martaba bu kawe martaba bu tuut la martaba bi ci topp mooy boo waxee dara ne amal mu am boo ne ko kun fa yakun mu nekk martaba bi ci topp mooy martabatul qutbaniya mooy bi ma lay wax noonu nekk qutb boobu mooy nag ba ca gën a kaweeti kon ñoom wilaaya ñetti martaba lañ ko amal martaba boo xam ne dangay naaw ci ndox ci di dox ci ay ndox ak di naaw ci ay ngelaw moo tax ñiy wax ne kon seen waliw julli na ci ndox mi nañ xam ne lenn ci moto sow yu fay jàpp nañ loolu mooy martaba al martabatu suxura mooy bu ndaw bi loolu garawul jarul xëy na bàkkoo ci moto sow yu fay yi martaba bi ci topp mooy wax dara ne ko kun fa yakun nekkal mu nekk àgg ci mën a wax dara ne amal mu am beneen bi ci des mooy nekk xutb boobu moom du caaxaan dem ba ci seen wilaay wala awliyaa yi ñenn si ñoom nee nañ dañuy xool nit mu daal di texe dugg aljanna moo tax maa ngi ciy gis Cheikh Mouhamed bi ñu ciy wax ak euh, kenn nee na daf ne dafa bëggoon dem fekk jigéen ñi nga xam ne dañ leen di nëbb ci kër yi ñu nekk ay ay jànq nga xam duñ génn mu dafa bëggoon duggoon pour xool leen pour ñu texe ndax moom ku mu xool nga texe Cheikh Mouhamed ne jarul mu dugg mënoon naa taxaw fu ñu ko séenee rek ak tijaan yi nee na moom dafa daje kenn ku mu doon wër ci Égypte ne ko dafa bëgg a nekk xutbu kooku ne ko nekk nga ko demal li nga doon wër am nga ko ne noonu lañ ko falee mu nekk xutbu noonu la nekkee waliw am na ci ñoom ñoo xam ne sax dañ daan bindalaate bindal la fay fëy ne la demal def naa la waliw nommé naa la ko ñoom isma bi nga xam ne moom lañ doon wax sànq ne du charte ci koo xam ne ab waliw la mu nekk maasum ñoom ñu ngi koy tuddee almanu mooy yàlla daf koy fekk ci njuumte moo tax alqushayri yi di wax ne waalam anna man aj min ajalli alkaramati allati takunu lil awliya dawaamu tawfiq liltaati walismati an ilisyan walmuxaalafat dawaamu tawfiq liltaat walismati an almaasi nee na bokk na ci mandarga yi gën a kawe yoo xam yàlla daf koy joxe koo xam ne ab waliw la mooy daf koy fekk ci lépp loo xamante ne ay njuumte la du ci tàbbi lépp loo xam ne ay mooy yàlla la ñenn ci ñoom nee nañ mooy yàlla sax mën koo def yàlla da koy dindi ci moom maanaam mën a def mooy yàlla gi nekk ci nit nga xam ne boo ko bëggoon def def ko loolu yàlla da koy dindi ci moom dootu fi nekkati nga xam ne moom ci boppam dootul mënate def mooy yàlla kooku kon léegi moom maasum rawatina weesu na maasum seen wa wilaaya googu boo ci àggee day dagan ci yow ngay def yi nga xamante ni yàlla daf ko xaraamaloon ci ñu nekkul waliw ndax sharia daf lay daal di wàcc yu bari ci ay bàkkaar dañ koy def ñenn ñi léeg-léeg ni ñu koy layalee mooy kii àgg na foo xamante ni lii xaraamatul ci moom ñenn ñi ne lii daf koy def ngir làqatoo ko ngir nëbb ne moom wàlliw la pour nit ñi bañ koo xam muy naan sàngara di dem ci baar yi ak yooyu pour nit ñi bañ a xam ne ab wàlliw la moo tax mu tasawi fa ngay gis ñu romb ab dof ci mbedd mi naan boo moytul wàlliw bu mag la de nit di tërëf mandi di romb ñaan boo moytul ab wàlliw la day làqatu ndax ñoom gis-gis boobu lañ am ci wàlliw dañ jàpp nit mën na nekk ci afjarin naas ñi gën a nekk ay faajir fujjaar ba pare nekk ab wàlliw buy làqatoo loolu moo tax yi mi ngi nettali ci benn cheikh bu mu doon tarjama boo xam ne lu muy def nee na kooku day gis nit mu yor mbaam mu ne ko teel ma bopp mbaam mi di sëy ak mbaam mi te nee na ci wàlliwu yu mag yi la bokk nee na bu kooku di ko jéem a dingat di am lu muy wax mu samp la fi nga taxaw doo mën a yëngatu maa loolu ci ak kattanam la mu samp la fa doo mën a yëngatu di def mbonte gu mel noonu nekk ci wàlliwu yàlla yi gën a mag nasallah salaamata wal afiya jàpp ne waliw day dem ba mën a génn ci tariqatu muhammad ñoom ñu ngi ci sukkandiku ci xissatu xudar bi nga xamante ni bi Moussa toog na ci banu Israil wax wax ju am solo am ko ko dikkal ne ko ndax am na ci àdduna ku la ëpp xam-xam Moussa ne ko déedéet yàlla wax yu ko ne ko lan moo tax biñ la laajee loo xamul delloowuloo ko ci man am na ca majmaul bahrayni ku fa nekk sama jaam boo xam ne jox naa ko xam-xam boo xam ne xamuloo ko moo yàlla ne ko laay def ba dem ci moom mu wax ne na jël benn jën boo xam ne dafa dee mu def ko ci benn ab saak yore ko bu demee ba fi jën bi rëccee na xam ne foofu la nekk bi mu ànd ak xale bi dem ba yàlla def loolu am mu xam ne kon foofu la ñu dellu fa jën ba rëccee woon fekk ko fa Moussa ne ko hal attabiuka ala an tuallimani mimma ullimta rushda Moussa laaj ko ne ndax mën naa ànd ak yow nga baaxee ma ci li nga xam kooku ne ko innaka lan tastatia maaya sabara Moussa wax ba ànd ak moom kooko wax wan ko ci xam-xam lu mu xamul woon ñu ne kon xudar ab wàlliw la Moussa ab la te xudar xamal na Moussa lu mu xamul woon kon ab ab waliw mën naa sori gën a sori ab ab ab ab yonent loolu moo tax kon seen waliw yu ñoom di mën a xam ci xam-xam loo xam ne yonent bi xëy na xamu ko wala xamleew ko loolu kon moo tax ñoom yitte woolul qissatu xudar di ko ci sukkandiku mais loolu xeyru saxiix li ci njëkk mooy ne xudar ab yonent la woon li koy gën a firndeel mooy li mu wax ne wa ma faaltuhu an amri dalika tawilu ma lam tasti alayhi sabara wa ma faaltu faaltuhu an amri li mu wax ne lii defuma ko ci sama coobare yàlla moo ko ko xamal mu def ko benn ñaareel ba tamit mooy Muusa bi ko yàlla subhanahu wa di wax def ne ko wa ataynaahu min min min indina allamnaahu min ladunna ilman wa ataynaahu min indina ataynaahu min indina rahmatan min indina wa allamnaahu min ladunna ilma min ladunna ilma boobu la ñu tuddee al ilmul mun ladunni mooy xam-xam bi nga xam yàlla moo ko jël directement jox la ko mais raxma foofu bi yàlla di wax raxma foofu li muy tekki muy an nubuwa aataynaahu rahmatan min indina mooy yàlla daf ko jox ak yonent mu nekk ab yonent moo tax borom xam-xam yi wax ci wax yu bari ci wane ne xudar ab yonent la woon boo xamante ne yàlla daf koo yebal ci beneen sharia bu bokkul ak sharia Muhammad moo euh, Moussa moo tax li mu li mu nekkoon Moussa xamu ko li Moussa nekkoon moom tamit xamu ko moo tax Moussa ne ko am nga loo xam loo xam ne xaw ko xudar moo ko wax Moussa man itam na lu ma xam loo xam ne xamuloo ko ku nekk kon am na lu mu xam lu sa moroom xamul kon xudar ab yonent la woon benn ñaareel bi ci des mooy même bu fekkee nekkul yonent Moussa yàlla yebala ko woon ci xudar Moussa ab yonent la boo xamante ni yàlla subhanahu wa taala ko woon ci xudar kon xudar mën na nekk ci beneen sharia boo xam ne Moussa du ko xam ndax yonent yu jiitu woon yàlla ci seen xeet leen di yebal mais li gën a wér mooy ne xudar ab yonent la woon bokk na ci lu koy gën a firndeel hada firaqu bayni wa baynik borom xam-xam yi nee nañ ab nit lu mu am am xam-xam du dajeek afub yonent naan ko hada firaqu bayni wa baynik fii la ñuy tàqalikoowee loolu kuy nekk ab yonent rek moom moo koy moo koy mën a wax ab moroomu yonentam kon foofu la ñuy taxawee bu ñu yàlla defalee tawfiq insha allahu taala bu ñu amee beneen jataay lu ci des tuuti la ñu àggale ko insha allahu taala wallahu aalam wa sallallahu wa sallama ala abdihi wa rasulihi muhammad wa ala alihi wa sahbi ajmain maa ngi jéggalu nag ci nu ñu xawee xaabaabal tuuti léeg-léeg thème bi moo lay jàpp ba dootoo mën a tënk loolu daal barakallahu fikum alhamdulilah sant yàlla subhanahu wa taala ñaan ustaz bi yàlla teel xam-xam dara day daal xam jàpp naa question yi di xaar dama xoole fa question yu bëri ma tontu nañ ko ci thème bi comme ay ñaan bokk ndaaj delluwaat ci catégorie bi xam inchallah dama ko dama ko dama ko حياكم الله